Uh, Mister Shake de retour de retour xaaral ma xaar gars yi At this time, I'd like to invite guests with one tender tickets to make your way to the gateway. Barthélemy If you have a tender ticket for group one, Barthélemy Diaz. You may now proceed to the midship staircase on deck five to join the line to the gangway. Midship elevators are reserved for guests with mobility disabilities. Ya je voulais gars, c'est chaque là. Voilà, channel twenty-three. Towels can be picked up in pink champagne bar deck by or on deck 4 midship alongside ponchos. ku dugg ku dugg ñu continuer tégal leen Donc on pas voulu me croire, j'ai même voulu même C'est très simple. On est à 4 ans de l'élection présidentielle. Dingue. On est en 2020. Même pas 2021 où il y a eu des événements. Je dis, si tu restes chez toi, si tu restes chez toi. Tu ne vas nulle part, ni au bureau, ni à la mosquée. Ni Sonko, même si tu as 4 ans, tu julli. Les 4 ans qui restent, tu restes chez toi et tu pries les 5 prières par jour. Dingue, tu julli 5 fois. À la veille des élections, on te dira que tu ne peux pas compter. 2024, Max Sall, Si tu as envie que je te donne une à quel point ces gens sont déterminés à ne pas te laisser le moment venu compétir. Si tu ne me crois pas et tu ne prends pas les dispositions nécessaires, le moment venu, malheureusement, tu vas constater wow. ce que je te dis. Parce que c'est la stratégie qui est mise en place depuis 2012. C'est la stratégie de l'élimination. Élimination. Macky Sall day éliminer. On n'est pas au premier cas. Je dis parce que je vous ai dit les raisons pour lesquelles j'ai pris sur moi. d'aller voir le président Macky Sall parce que je me suis dit quel que soit Alpha nous nous sommes déjà éliminés. nee na sur lequel parce que beaucoup d'espoirs sont portés. quel que soit Alpha il sera éliminé. Dengue, c'est pas une histoire de justice. il sera éliminé. il faut que les gens reviennent à la raison. Dengue. c'est une histoire de raison d'État. raison d'État mais Barthélémy Diaz moo yabaate. battle. Diaz moo yabaate Barthélémy Diaz mooy naay fe moo Barthélémy Dias dafa ñoo bëgg gëmloo que moom neewoon na Sonko doo bokk looloo tax mu dem dialogue nee na ko depuis deux mille dix neuf waxoon naa la doo bokk. lu tax parce que raison d'état lu tax parce que noonu lañ def xalifa sàll mais Barthélémy lu mu war a comprendre mooy moom li ci xalifa Sall du ci sonkoo xalifa Sall mënul génne benn nit pour mu xeexal ko Ousmane Sonko Macky Sall mënu ko élec éliminer ci élection li fekk neexul Ousmane Sonko.

mom moko gëna xamné bu fekkone dafa and ak Ousmane Sonko Khalifa Sall and ak Ousmane Sonko yeewu askan bi ñom ñëpp ñu def bloc ci Ousmane Sonko ba xex ba nek ay député nek ay maire buñ ko xexalon Ousmane Sonko Ousmane Sonko nek président kon munoo fi nekk di wax raison d'état mel Macky Sall moy baayu Sénégal mom moy décider ku bok ak ku dul kon yow nangu gané Macky Sall même bu fekkene ne sax dafay jalgati comme raison d'état la rek. moom li mu bëgg mooy am lii waxu naafeq la du waxu jullit du waxu jullit ndax yow munoo wax ne Ousmane Sonko bu toogee këram ñeenti weer politigul gisul Adji saar deful dara mu toog këram du julli rek ah quatre ans quatre ans deux mille vingt ba deux mille vingt quatre deful politique mu bàyyi ba deux mille vingt quatre mu ne damay présenté wu Macky Sall dafa naan ko doo présenté wu parce que raison de d'état lii waxu naxa sa xandang la waxu naafeq la Barthélémy Diaz yow Ousmane yow da ngaa xeex. fii la la Ousmane Sonko gunge Medina Macky Sall convoqué la euh, nu mu tuddati tribunal Macky Sall moo la convoqué tribunal ngay yagar yagari n'est-ce pas Ousmane Sonko xam ne boo demee tribunal Macky Sall da lay tëj te bu la xasee tëj doo nekk candidat doo mën a nekk député doo mën a nekk maire Ousmane Sonko ànd ak yow ci yoonu Medina bi ñu sànni leen ay grenade di leen sonnal ngeen dem laqatu ci benn kër ngeen génn yeen ñaar di xeex xale yi génn ñu jàppale yóbbu la camp Abdou Diassé bañ la japp yóbbu kan Abdou jassé Khalifa Sall le traître mune xalé yi bàyyi leen xex dem leen ñibbi xalé yi ñibbi ñu ne dañ lay bàyyi après wuñ la gaay boy gennat vedem tal ci le Khalifa Sall gennat di wax japp nañu Sonko dug na fi genn fef fekk na boy commencé nañ tal Macky Sall ba la la bayé may la jam nga dem présenter wu nek maire nga gagner nga yak suñu liste Barthélemy Diaz nga yak suñu liste. Hein? parce que yow yaa jël jigen nga dougal ko parité tay nga ñew fi tok France hein? di wax ne yow sa nekku ci Ousmane Sonko nga ne nañ la wax nan nga trahiré Ousmane Sonko tu as posé une question moi je vais te répondre tu sais comment tu as trahi Ousmane Sonko moy bañuy ñuy suñu liste Hein ñu ne ak tak euh, tekki wax di am tekki une équation très simple une équation à deux de xaw sax composante très simple tu mets une femme un homme une femme un homme yow nga jël ñaari góor nga dugal parce que sa nit nga bëggoon dugal Gàccee Faal jàppale la ci parce que gatché moo doon suñu mandataire Sonko wo gatché Faal ne ko yow lima la wax def ko dindil euh, nitu Barthélemy nga dugal jigen gatché ne ko ko def xaaral ba minuit minuit jot gatché fal xol geej hein ah? yow nee nga nan nga nan nga trahiré Ousmane Sonko Barthélémy Dias man wax naa la noonu nga trahiré Ousmane Sonko parce que tey Sonko bu nekkoon député Macky Sall du ko mën a jàpp ci affaire Adji Sarr Sonko day am immunité Sonko moo naroon nekk président de l' assemblée nationale. noonu nga kon bul wax ne Sonko mënul bokk parce que Macky Sall moo ko décidé mais yow xanaa yow doo góor Barthélémy Dias yow boo jógee di wax gentleman nga góor nga nit ñëw na sa kër di la song nga jël pistolet dóor ko xeex lañ la xamee. gis nga nit trahir nit dara nekku ci waaye da ngay assumer waaw munoo ñu gëmloo ne Ousmane Sonko du bokk ci élection foo ko teg lu tax parce que Macky Sall moo ne du bokk parce que def nañ ko Khalifa Sall mais Khalifa Sall dañ ko ko def mu ñàkk fayda mu ne bu kenn xeex Khalifa Sall dañ ko jàpp tëj ko trois ans mu ñàkk fayda Ousmane sonkoo nag dafa woote gatsa gatsa woote gatsa gatsa xeex ba nekk maire Ziguinchor xeex ba nekk. Euh, yow nga nekk député Ousmane Sonko xeex ba am 26 six 24 ma député am groupe parlementaire Ousmane Sonko euh euh euh pur am ay député Ahmed Aïdara nekk député yéen ñëpp nga nekk député mais ba ngeen demee ba ci biir nga bëgg Khalifa Sall nekk président moo tax nga ne nañu tànn kenn su ñun ñu éliminer Ousmane Sonko ngeen yaakaar ne yéen mais yéen waa Sénégal lan moo tax mu bëri dof yéen ku leen waxoon ne yéen yéen Ousmane Sonko dinañ ko fi bàyyi di jël Khalifa Sall mu nek suñu candidat wala Karim wad, loolu ñu préférer jël Amadou Ba sax mi nga xamné lu bon bon premier ministre bi nga xamné Amadou Ba lu bon bon moog Sonko ay xarit lañu won Macky Sall ba mu bëggé tecc Sonko ba mu bëggé dakk Sonko euh, euh, impôt et domaine Amadou Ba premier ministre dafa né bu ko kenn dakk ah de nga Cheikh Bara ndjay nee nañu Amadou Ba da doon jullee ndok Sonko Amadou Ba ak yaayu euh, euh numu tuddati Euh, Anna Diamanka ay xarit lañu yóbbu na ko màkk ñaari yoon et cetera et cetera am na ñoo xam ne ñu ne du baax mooy plan B wu euh, euh, ñu ñun ñu jëloon Amadou Ba def ko premier ministre bii def ko président te xam naa ne foofu lay mujj moo gën ñu jël kenn ci yeewu askan bi muy nekk président parce que loolu dafay yomb Ousmane Sonko liggéey li muy liggéey ba fii di leen ko yàkkal Macky Sall nag moo ñàkk fayda moom tamit liggéey li muy liggéey ba fii bëgg ko yàqal Amadou Ba te waa APR gëmuñu Amadou Ba Cheikh Bara Ndiaye bu ne Amadou Ba bu nekk président day libéré Sonko xëy na am na fu mu ko teg man man ñëw ma fi pour campagnal Amadou Ba mais dama leen di bëgg expliquer ne yéen vous perdez votre temps yéen waaye yeewu askan bi boo leen yaakaaree ne kenn ci yéen ngeen di yàggar-yàggare ay Mimi Touré dégg naa dem na di seeti Ousmane Sonko ñu ne ko doo jàll parce que tampon bi ngay am am baaxul Gàccee Fall dem na seeti Sonko ñu bàyyi ko mu seeti Sonko le docteur Cheikh Tidiane Dièye bërki démb nee na Sonko moo ko wax pour mu nekk candidat ay vrai dof ku nekk di rak jëmal sa kanam mais nañ déglu Barthélemy Dias moom li ñu bëgg gëmloo mooy waxoon naa Sonko doo bokk foo ko teg 2020 Sonko amul Adji Sarr amul dara dara amul nga ne ko doo bokk foo ko teg foo teg nga ne Sonko du bokk parce que yow defoon nga sa bopp ne booy bi dama koy use ànd ak moom Khalifa Sall mooy nekk président parce que Khalifa Sall bu nekk président man maay nekk premier ministre loolu nga jàppoon li ngeen di ànd ak Sonko yëpp gëmmu leen Sonko

waaye ki mu tànn est-ce que na gagnewul de Macky Sall dafa jaar ci kawam Sonko bu tànnoon kenn ci yéen mooy gagné comprendre mais Barthélemy man fii laa wax ma ne guerrier nga parce que yow yow da ngaa xool li la arrangé nga dem nga def ko am nga ci droit Barth am nga droit nga ne man damay trahir Sonko waaye li ñu dul nangu mooy nga trahir Sonko ba pare ñëw bëgg ñu gëmloo que ne yow trahiruloo Sonko fii fii déglu leen ko léegi mu laaj mu ne. wax leen ma fan laa trahiré Sonko boo posé ta question boobu dinaa la répondre mais nañ ko déglu muy jéem a justifier li tax mu dem dem ci dialogue bi loolu lay jéem a justifier déglu leen. vrai problème du peuple c'était le 3 troisième mandat. dégg nga nee na troisième mandat lañ doon xeex. c'est pourquoi je me suis dit. waaw moi je ne suis pas candidat. waaw mais je sais que comme nous sommes éliminés les autres seront éliminés et celui-là c'est très bien qu'il n'osera pas briguer le 3 troisième mandat. dégg nga dégg nga dégg nga nee na Sénégal problème bi ñu amoon du Sonko nekk président de nee na Sénégal problème président Sall du mandat ne ko waxoo Sonko président moo doon suñu Président.. bu njëkk moom lañ doon 2021, am victoire Sonko ci boppam président mu Sall ba 2024, parce que yéne ko encouragé 2021.. victoire parce que bu victoire Khalifa Sall du motax ñom ñoom ñoo convaincre Sonko ak sëñ Mountakha ak ñep ñu ne ko bayil ñu gungé ko ba 2024 est-ce que yéen a ngi ma dégg. nee problème bi ñu amone du problème Sonko ah troisième mandat la ndax buñu ñu ñun ñep dañuy éliminer ya waxo deug yow ya gën xamné xam ne Macky Sall mënula éliminer Barthélemy Diaz la preuve ba mu né da lay éliminer ci mairie mairie Dakar da nga xex ñep xex Sonko xexal kon bo togué di wax né problème bi ñu amone moy ñu ñëpp mais Macky Sall moy kan bay éliminer ay nit bu len éliminer c'est parce que da len neex yena sacrifier Sonko seigne Moustapha Sy bu top bu nekkon ci ginnaaw Sonko né Sonko moy suñu candidat ay de Mbodj nekk ci ginnaaw Sonko né man soxlawuma sax parrainage mais yeen ñëpp ku nekk du wut parrainage parce que gëmu len Sonko yeen Sonko limu len defal yépp Sonko limu len defal yépp motax ngeen nekk ay député Ablaye Wade ñaati député la amoon Macky Sall nangu woon na député xaw ma quatre député la amoon xaw ma cinq Sonko dugg ci àll bi xeexal leen jox la Pikine ah jox la fépp xeexal la xeexal la boo leen defoon bloc yéen ñëpp ngeen def bloc Karim Wade ñëpp Karim Wade ñëw ne hey man neexul ba neexul mais li yàlla dogal dama koy nangu Khalifa Sall ne ah neexul ba neexul li yàlla dogal dama koy nangu man Sonko bu nekk président ma jéem a nekk président de l'Assemblée Karim Wade ne ah Sonko bu nekk ma nekk premier ministre. Euh, euh, euh, Mali Gakouni, ah Sonko, bonen ki prezant, men menane ki minis d'espoir wali liye gli. Yen nyep, nyenen, yon soklou yon paraynage. Ken doufi out paraynage, benne kandida leni ammou Sonko. Sonko, fimo djoume, mwen, yon ou asken bi, wou roulon nangou, nyou def sen, sen, sen deklarasyon dof bobou, kom kwa, wey, bonen ki deme, bonen ki separe lejilativi, konen ki dene yon outol sa bobou. Sonko, wou roulon nangou loulou. Sonko, wou roulon nangou loulou. Daf len wou roulon fii xam ngeen ne man maa fi nekk man maa fi nekk man maa leen yóbbu ngeen nekk ay député léegi ngeen bëgg baay ba assemblée euh, élection assemblée yi jeex léegi ngeen ne ku nekk day demal boppam loolu day indi féewaloo ñu tànn kenn ci ñun bu dee man ngeen wóolu nga ne man maay nekk seen candidat kenn du fi ut parrainage waaye golo gu jóg ne day ut parrainage le docteur Cheikh Tidiane Dieye démb nee na day ut parrainage ah <coughs> nu mu tuddati mista layem layem day ut parrainage ah gàccee faal day ut parrainage ay da mbóoj mais men nu may mën a busoo léegi fi des Cheikh Tidiane Dièye maa ngi ko doon tagg mu dem ci Sonko wey Gisna Sonko patati patata je suis le docteur Cheikh Tidiane pour man 111 lay jàppale je vais vous revenir dans quelques jours vraiment le Sonko que j'ai vu c'est un Sonko visionnaire un Sonko qui est sûr de la victoire Hein... un Sonko qui m'a dit est en pleine forme n'est-ce pas Ils pensaient le briser, mais ils ne l'ont pas brisé. On a une stratégie gagnante, Cheikh Diane Je vais vous revenir d'ici quelques jours. Ce que je man ma nek fi di Cheikh nan ki dal moy vous le ba ñepp nga parrainage ñepp parrainage mom parrainage rek ak ak ak ak euh, euh, ak ah, ah, Maimouna Bousso ñoom rek ñoo fi utul parrainage ay waay Cheikh Tidiane Dièye yaay gor ñëpp dam nañu bàyyi Sonko yow rek yaa fi nekk ma koy tagg pendant des mois nekkete yow le docteur di Tidiane Dièye avec sa grosse tête nekkete moom moo gën a rëy bopp euh, gàccee faal nekkete li muy wax yëpp euh, euh, boppam la doon ràccal démb la génn mu génne mu ne li ma waxtaan ak Sonko Sonko moo ne ma dem ut parrainage yow docteur ti Tidiane Dieye dix parrainage foo koy jëlee mais Sénégal la moo tax mu bëri ay dof ku nekk yaakaar ne mën nga nekk président sawaay fexe na ba loqati trente million baara wàññi dem na déposer caution trente millions sénégalais cinq cent mille sax amuñu ko barke Rasulullah xoolal ma naan cinq cent

baara wañ mais ñun fan la ñu def mais Macky Sall billahi wallahi ta'ala yalla du joom yalla du joom Macky Sall rek ñu lu mérité Amadou Ba sax dafa waron dafa wara a Macky Sall continuer Macky Sall rek baax ci ñun parce que golo gu juk ne dafa wara nek président li mo yakal Sonko yeen ñëpp bo leen defoon bloc Sonko mo def erreur dafa leen waron imposer mu ne leen hey man demuma législatif ñun ñëpp signé ñu ne dañuy tan kenn mu nek suñu candidat bu Karim Wade da ngeen wolu na nekk Karim Wade bu dee euh, Khalifa Sall ngeen wóolu nekk Khalifa bu dee man ngeen wóolu ma nekk Khalifa ñu signé lu leer bu ma nekk président Khalifa yaay président de l' assemblée su ma nekk président euh, kii yaay nekk lii yaay nekk lii yaay nekk laa ngeen juboo waaye golo gu jóg cent deux cent candidats ngeen ne da ngeen di ut parrainage ku nekk convaincre boppam que mën na nekk président de la république mais Barthélemy Dias wérul parce que moom bu yaakaaroon ne mën na trahir Sonko ba pare Khalifa Sall. Khalifa Sall nostalgie la am xam nga Khalifa Sall la la nostalgie parce que ay temps moom moo chef de l'opposition. opposition gars fii mi ngi taw de Khalifa Sall li mu amoon gagné Dakar loolu la nam yaakaar na loolu day continuer looloo ko doflo mok Barthélemy Dias mais legui gis nañu Barthélemy Dias dem na ba ci bir xam nañu ñom 2 pour cent sax duñu am déjà est-ce que ñom Macky Sall dina leen bay ñu bok

mais Macky mo bax ci yéen Macky mo bax ci nañ ko wat ngi taw de. quel que soit le choix. qui va désigner pour le remplacer ce choix ça. donc il faut qu'on trouve dans la famille. de l'opposition naturelle. quelqu'un qui puisse porter les espoirs de cette opposition. kookan la Khalifa Sall et j'en avais parlé avec un ami. qui n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Il n'a pas voulu me suivre. Il n'a pas voulu me qu'il la raison parce qu'il n'a pas le choix. Dengue, dengue, dengue, ni sonko. Dengue ni sonko. sonko que Macky Sall dafay tan nitu bopam. Té ki moy jall par force Amadou Ba. Té ko bat fa le président de la République du Sénégal. Amadou moy nek président boudé dee Macky daqul daqul élection yi waaye léegi nee na Sonko daa ngeen baal mu ngi taw dé mu Sonko comme Macky day tan Amadou Ba wala ku mel Amadou Ba ñun tamit il faut que ñu tànn kenn ci ñun comme yow do bok loolu wax Sonko de comme yow do bok il faut que ñu tànn Khalifa Sall comme ça Khalifa nek suñu candidat waaw Déthié Fall Gathie Fall wax naa ko. nee na moom moo wax Sonko Macky day tànn Amadou Ba te Macky ku mu tànn mooy nekk président par force sama caméra baa ngi leen mu taw bi la. léegi mu ne il faut nga tànn Khalifa Sall mais Sonko dégluwul mais j'espère que léegi dina déglu parce que mu ngi ci kaso bi sonn na léegi j'espère que dina déglu pour wax ne waaw maa juumoon wax nga dëgg Barth waxoon nga dégg de kon léegi Khalifa Sall Barth Barth ku mu yàpp déglu leen ko. Il ne s'agit pas de Khalifa. Il s'agit de nous tous. Il de nous tous. Du Sénégal. Wow. Et quand il s'agit du Sénégal, wow. tout le monde doit accepter de se sacrifier. Sacrifier. Une chose est claire, moi je suis un croyant. Nee S'il est écrit dans le destin de l'homme Qui sera président de la République, nul ne peut empêcher à cette personne d'être président. Bu leen tàccu de. Personne. Bu leen tàccu. Dégg nga. Dégg nga. balaa may dee nag mu ñuy jéem a jaay xut nee na dañuy xutba inna lazina amono wa aminu saalixaati watawaato bil xaqi watawaato bi sappi au nom du père du frère du frère de la sœur ah au de la grand-mère au nom euh, de de l'oncle de la tante nee na yàlla bu bindee sa jë da ngay nekk président da ngay nekk président waxoo dëgg président boo ko bëggee nekk da ngay gat sa gat sa xeex Macky Sall dafa am fulla am fayda yéen ay tappet ngeen ay jaam ngeen da ngeen warante seen biir Ousmane Sonko nak Ousmane découragé mu visiter avec sa grosse tête avec sa formation de militaire j'ai fait l'armée de l'air j'ai fait l'armée de mer hein, j'ai fait l'armée de terre je sais faire la guerre je suis Fall Fall du ñaar a suñu liste équation très simple à résoudre, comme l'a dit euh euh, euh, euh, euh, Diallo Tekki. Une femme, un homme, parité. Barthélemy nga jël ñaari góor teg fa parce que Macky moo la yónni pour yàq suñu liste Gàccee Fall jàppale la tey Gàccee Fall a yagar yagar yi y day seeti Sonko parce que Sonko nooy bopp la Sonko ben nopp la looloo ko yàq c'est un sentimentaliste bu jég bu jégee di déglu doomu xaraam yi nga xam ne ay jaam lañu xaar ma dem parce que taw baa ngi may sonal c'est problème de Sonko c'est ça le problème de Sonko Sonko c'est un homme trop naïf même Sonko il est trop naïf même Lolo ko yàq. gars a je ma téléphone parce que nous, commencé caméra bi y a caméra Sonko il est trop naïf même di un même nous, tu dem na Sonko ماكسالا مكسال انك بوقف ماكسالا اي مكسال مو ام فلا ام فايلا بس خمنا نقاتشي فالو غرا قاتشي بنا دي سيتي سونكو نينا اي باي لن قاتشي دم شيخ تجانجي لو دكتور شيخ تجانجي بنن حال بولا بنن حال بولا كل ديسبسيون من ما ام ديسبسيون دكتور شيخ تجانجي quelle déception man maa am déception ci docteur Cheikh Tidiane ak lettre bi mu fi bind barki démb ma nekk fii di di tagg lettre mu naan ñu Sonko mi ngi ci jàmm Sonko mi ngi en forme on va gagner man ma yaakaar ne 111 lay jàppale ba Bassirou Diomaye je vais vous revenir d'ici quelques jours avec la stratégie gagnante que Sonko m'a proposée. Vous allez voir, c'est le remède euh, miracle, c'est la potion magique. Je vais vous dire comment, je vais, comment on va gagner contre Macky Sall. Sonko m'a Sonko m'a dit d'aller hein, chercher des parrainages. Il y a toujours mon Parrainage le 11 Niger. Dès le 29, 13 jours, mort le décès.

ay mag yi base yi na sonn xale bi daf ñoo sonnal ñuus ko dóor ko na maxaneem sonn Cheikh Tidiane Dièye xam naa mi ngi salon di seetaan mu bàyyi ba ba ñu pamti pamti Sonko ba yóbbu Sonko këram mu dem kër Sonko ci biir kër Sonko ci salon ba xaw ma ci peron mu def live Je suis le docteur Cher Je suis le docteur Cher Vous me voyez à présent, je suis, un n'est-ce pas, chez Sonko. Hmm? Je n'étais pas sur les lieux, sur la corniche, lorsque Sonko a été brutalisé par Maxal. Pourquoi Parce que moi, je suis allergique au, n'est-ce pas, au lacrymogène. Mais maintenant, regardez-moi, je suis ici pour défendre la démocratie. Où est la caméra Où est la caméra principale Hein est-ce que vous me voyez est-ce que ma cravate est bien ajustée ku di def self promotion gàccee Fall, self promotion mais qui Barthélemy daf ñoo yàpp man dama ko faawoon ci ben côté mais maa koy commencer weddi parce que man dama bëgg goor buy assumer ah gentleman da ngay assumer say choix bu la neexee nga politique politique politique la son ko il est naïf comme ñu suñu présents, ko ben nopp la ay dama bu ñëwé sol ay or siiñ ko wax ko dara rek mu gëm mais mun a buso bu ñëwee ak nu mu baaxee wax sonko a ah, sama càmmiñ sama doom nga wala petit pata siiñ rek bu xam nga sonko moom da ngay waaru dafa il est trop crédule lu ko nit wax mu gëm ñoom Khalifa Sall buñ ne ko garaawul nañ yóbbu plan mu ànd ci sëñ Moustapha Sy ñoom yuum avec sa langue de miel la lu yuum la wooy je suis le coordinateur de Yewwi Askan Moustapha Sy parce que Sonko la dafa nooy bopp instant yi recevoir kenn kenn ndax gars ñu ngi koy yuus ndax docteur Cheikh bu génnee ñu wax naan Sonko moma wax demal ko parrainage ngeen xam ne loolu c'est ay fen kese la Dame Mbodj mista layam layam ci bop génn bu ñëwee wax ñu li Cheikh Diaté wax légui léegi sax koy yëpp parce que Cheikh Diaté dafa ñëw Sonko il est en grande forme ni mu mel ci forme sax mosu ko mel Dame Mbodj génn ne non non yooyu parce que Cheikh Diagne Dièye dañ torte il nous raconte des histoires xam nga gars yi parce que Barthélémy mais mi ngi taw de sama téléphone bi yàlla bu mu fay téléphone warul tooy mais leen ma deux secondes ma non sama yaram dafa tàng gars yi bu leen dem ñii duñ leen may dara doomu xaraam yi cëp billaay Sénégal moo tof dof Sénégal bëri dof ku jug rek kanu ku jug rek ne dafay nekk président mais pare gu ci baare dolli 30 millions génne xobet xobet Sénégal ñi ñaa ngi jooy dépense 1000 francs 2500 ben murit ñëw génne 30 millions té amna est-ce que caution amna na nu muy demee ko perdre gars yi wax leen ma bo défé caution caution est-ce que do perdre xaliss bi amna na nu muy est-ce que do ko perdre mais gars yi élection nek président jaral na sax perte 30 millions Macky Sall dafa waroon créer ben loi bo défé caution. amul 1% wala loolu da nga wara perte ndey lepp loolu la wara def def na sax loolu amna budé amna wax lañ mais Cheikh Bara doli 30 millions Sénégal yeen Sénégalais kenn ngeen di yow ñom ay milliardaire la ñi ngi dawal 4 4 ñi ngi sen auto ay millions fa nek Cheikh Bara doli mos nañ ko wone télé muy muy muy muy baat rek nit am lu mu wax ci sen Tuubaa rek mu commencé di génné ay 10000 di maye tay mi ngi ni 30 millions 3e jour depo xawma mu ñew génne ko. xobet xobet ñaata million la denc boo lu jógee di wax ne Amadou Ba dafa sàcc ay milliards Mamour Diallo dafa sàcc milliards mais ñii ñëpp ay milliardaires lañu nguur gi li mu leen jaral man moo ma jaaxal nañ déglu Barthélémy bi. waaw Pour la première fois les Sénégalais sont libres d'élire leur président de la République. Et je l'ai dit à Kaolak, à des jeunes qui je ne sais pas si vous voulez nous taquiner ou pas à un moment donné ils, parlaient d'un candidat désigné par le président sortant. je leur ai dit vous savez. pour la première fois Sénégal amené une possibilité tànnal suñu il faut chaque jour dafa expression bo xam ne daf koy wax mom chaque jour bàyyi leen seen xel yi ngeen di fowé mom instant yi moom xew fowé parce que mom bu yaakaaree né vraiment Khalifa Sall mën na am 1 xana cent dafa ce sondage bi Seneweb fait.. entre Khalifa Sall euh, Pape Djibril Fall euh, Sonko Et Karim Wad..! Sonko am presque 2000 xawma Khalifa Sall am 8 Khalifa Sall..? Khalifa Sall 4 la pap Pape Djibril Fall am 8 bat euh, ki am 8 nu mu tuddati Pape Djibril Fall Ni ci des ñëpp Sonko la ñu voté Barthélemy moom nena, élection yi ci la ñu am chance pour jëlee fi Macky Sall te da ngay nax sa élection y, parce que gars première partie bi Barthélemy deuxième partie bi il faut que ma eggali sama live parce que man sama live du ma jël sama live bi ma koy consacré Barthélemy Diaz xam nga mais pour moom nena, élection yi ci la ñu war profiter mën a profité fi Macky Sall nañ déglu. Nous, on était mariés au président Macky Sall. Wow. C'était un, mariage. Nena. On a décidé de divorcer. De faire mal, hein? T'es Macky Sall là? On a marié nos mômes. Fai. Macky Sall Et en partant, elle dit à son mari, je m'en vais, et je te laisse ma petite soeur dans la maison. De faire mal, les jigens vous faillent. jigéen bu see góor fay ba pare ne ko waa léegi pour nga bañ a mer xaar ma jël sama petite sœur ma jox la ko nga takk ko Macky Sall Amadou Ba la ñu bëgg a imposer Amadou Ba lay critiqué waaw ah. ah. waaw ah. waaw waaw yi li ci des xaaral li ci des ma résumé leen parce que du ma teg lépp ci Barthélémy Dias di perdre sama temps baptisme la du perdre sama temps de yak sama live mais limu wax moy néna Ousmane Sonko mënul am 50% gagné premier tour Barthélemy néna 111 ak pastif même buñu bokone mënul gagné premier tour parce que lu gaaw gaaw mu ñuy jënnel ay ay ay ay chiffres Macky Sall 1 500 la amone ci vote législatif yeewu askan bi xaw xaw xaw ma am un million cinq cent xalifa ñoom euh, PDS quatre cent mille nee na <clears throat> yéen da ngeen yaakaar ne kon un million cinq cent yeewu askan bi am yëpp Ousmane Sonko moo ko moom da ngeen di nax seen bopp boo leen jógee di wax ne boo leen demee élection da ngeen di jàll premier tour da ngeen di nax mu ngi ñuy xas quoi li mu war a comprendre mooy leen déjà ñëpp xam ne ne APR benn bokk yaakaar bu ñu nee un million cinq cent la ñu am amuñu un million cinq boo demee huit cent mille lañu am li ci des taaba taaba la parce que Farba Ngom bu demee Kanel mën na fa yokk trois cent mille dem Fuuta yokk fa deux cent mille loolu la gàcci Fall waxoon gis PV yi au mu photocopier PV yi mu génn ak làmminam bu rëy di wax wey gis naa fa Fadel ah Bart kii lu fa def Farba Ngom ah PV yi xaw ma lii xaw ma laa di wax suba incha allah dinañ dellu moo avertir Macky Sall si vous c'est ali de ko ba da ngay ba gis Macky day gonfler ay chiffres deuxièmement élection législative ak président du Ben Sénégalais, ci ay député vous voter pour Macky Sall Ousmane Sonko mënul am 50%. Barthélémy vous waxuma le Ousmane Sonko 111 la la wax 111 muy muy muy ah, Diomaye fay billahi wallahi ta'ala bu demee élection ak Amadou Ba premier tour lay gagner 111 111 premier tour lay gagné xam nga lutax muy gagner premier tour parce que sénégalais yi mère nañu Macky Sall mere bo xam taux de participation bi mooy ëpp législatif té nit ñi bu boba vote utile lañuy def xam nga vote koñ pour maire ak vote pour sa dëkk c'est différent ku daroon votel Khalifa Sall danaan déedéet su ma votelee Khalifa Sall damay yàq vote ku daroon votel Karim danaan déedéet su ma ndaree votel Karim damay yàq vote naa jël lépp ma def ko Sonko Sonko bu nekk président dafa mel ni Moustapha Sy mooy président dafa mel ni kenn mooy président foofu la Barthélemy Dias ju juume te ku weddi xoolal li am ci élection bële passé deux mille deux mille douze Macky Sall ñaata la ñaata la amoon 65 pour fan lay jëlee 65 deuxième tour premier tour Macky Sall ñata la am? amul woon 20 xawma. mais deuxième tour ñata la am amul 65 pour cent man bootalu woon Macky Sall dé 2012 Abdoulaye Wade la faraloon Yeen ñii mi di wax nan monsieur Cheikh Macky Sall Macky Sall man Macky Sall joxu bokuma ci ñuko ko votel billaay wallaay taalaay 2012 parce que man Abdoulaye Wade la gëmoon de moo gën Sénégal que Macky Sall bien que troisième mandat ce n'était pas légitime parce que man xamoon naa Macky Sall mi man mon confiance ci mais ñëpp dañu def bloc mu am 65 Macky fu m'a amee 65 pour cent Barthélemy nga ne Sonko mënul fa am 51 pour cent Barthélemy bàyyi soxor bàyyi sa xel bi ngay fowé yow kay assumer sa trahison ci bir li ma len tégal vidéo bi mu len tégal dafa né wax leen ma fan laa trahir Sonko wax naa leen ko fi nga trahir Sonko mooy Sonko dalaa xeexal nekk ci tali medina yi xeexal la ba nga nekk maire nekk député yow nga dem ba ci biir yaakaar ne yow Khalifa Sall mën ngeen nekk président ak premier ministre nga yaakaar ne bu Sonko nekkee kaso après yow di nga génn après yow yow di nga récupérer suñu vote malika Gakou loolu la foogoon dafa yaakaar ne bu Sonko nekk kaso moom ak Ahmed Aïdara mën nañu récupérer le vote le vote euh, patriote ah Mimi Touré mi di dem djema a euh... Macky Sall euh... euh, euh, euh mu tuddati Sonko Macky ne ko doo ko parce que Mimi dafa dangereuse Mimi Touré dafa dangereuse bu nekké candidat Sonko ne votal leen Mimi Touré barki Rasulaay Macky Sall day un problème xamna motax moo tax Macky buggul Mimi Touré gis Sonko mais Sonko bu mu tànn Mimi Touré Sonko warul tànn kenn kenn ku dul jomaay bu Sonko ne jomaay du bokk nag kattanday yow askan bi mu tas Macky Sall jaar suñu kaw Amadou Ba nekk président ñu ñu dundee yaakaar xëy na Amadou Ba bu nekk président dina wor dina tas benn bokk yaakaar parce que Amadou Ba jubóowul ak Mame Mbaye Niang jubóowul ak ñooñu ñëpp mais balaa may ñëw foofu <laughs> balaa may ñëw foofu. naa eggal li may wax li may wax Bart mooy leen li may wax Bart mooy leen assumeel sa trahison te xam ne yow billaahi wallaahi taalaahi yàqu nga yaa ko tey yàqu nga yow ak yow ak Khalifa Sall sëggam Khalifa dina bokk parce que li ngeen def yëpp seen bokk sax wóoragul mais man gëm naa ne Macky dina leen bàyyi nga bokk mais Karim Wade yow moom sa trahison di nga ko gis parce que doo bokk Karim Wade do bokk déjà 3 mois moo des ci élection yi mënoo ñëw ngay profité di dugal ay caution 30 millions ya xam lu ko sa caution 30 millions Macky Sall fulla bi mu am ak fayda bi mu am comme yéen sacrifier sacrifié Sonko te Sonko mais ku tëj Sonko Karim Wade dalay jaxal jaaxal ku tëj Sonko Khalifa Sall dalay jaxal jaaxal fi mu ne ko képp celui qui lève le petit doigt Macky dalay lay saax-saaxe barki la suul lay yéen erreur bi ngeen def moy da ngeen waroon dooleel Sonko boo leen dooleel Sonko troisième mandat du am moo tax troisième mandat amul yéen ñëpp def bloc ne troisième mandat di am ni ngeen def bloc ba xeex troisième mandat noonu ngeen waroon nekkee bloc ngeen ne Macky Sall Sonko day bokk par force léegi nag comme defu leen ko on avance léegi man Barthélémy Dias bara naa ci moom léegi li ma bëgg expliquer mooy leen lan moo war a nekk stratégie président Ousmane Sonko stratégie président Sonko Barthélémy mi ngi lay xas. naan la waxoon naa la doo bokk lii bu dee Sonko dégg na ko war na am lu mu yee moom war na am lu mu yee ci moom woon naa la doo bokk mel na yow bokkuloo Massama eh, Jéeme jaajaf Sonko lii war na yee ci moom am lu mu yee ci moom dafa mel ne Macron ba mu demee di tagg makki Sall naan ko way yow guerrier nga sa dëkk dafa ndoroon am ay terroriste nga fexe ba xeex Mac Macron loolu mooy xaw a yee Sonko parce que si suba si ci la Sonko ne day def déclaration après daal di ñu indil jomaay kon tey Barthélemy bu toogee ne Sonko waxoon naa la doo bokk affaire fitna yi ngeen bëggee ci indi indi ci réew mi du jàll loolu la xasee Sonko da doon gaaruwaale tey lii dafa war a yee dara ci Sonko Sonko est-ce que lii war na tax nga ne ah léegi Barth dinaa la wan ne damaa bokk par force. mais Barth nee na du ñu bokk Barth nee na du ñu bokk ça veut dire que Sonko du bokk 111 du bokk Mr Layem Layem du bokk kenn du bokk kenn kuy nduróog euh, euh, euh, Pastef yaa xam Guy Marius Sagna yaa xam Waaji Faal njool bi yaa xam El Malick yaa xam Biram Souley kenn du bokk te gars yi Barth foofu moom wax na fa dëgg parce que Sonko bëggul bokk loolu moom loolu moom dafa jaaxal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp adduna bi yëpp la jaaxal gisuma Semi Keba xam naa ne dina ne wax man man lan moo fa xew Nathalie dina ne wax mais suñu waa ji Sonko lan moo ko dal Assimi Goïta dina ne dina ne wax mais Sonko mii lan moo ko dal des na kenn Alpha Blondy Tiken Jah Koli Tiken Jah Koli Tiken Jah Fa Koli maanaam Koli ñooñu ñëpp nga xam ne dañoo amoon yaakaar ci Ousmane Sonko waa ji nekk Niger opposant bi nekk Niger ah te nga xam ne moom Sonko moo fi invité woon Sonko ñëpp gëm panafricain gis ni kii gatsa gatsa lay woote mortal combat xeex mais dinañ ne may saa waay kii lan moo ko dal. Wakazamas, Casamance dañoo ci ne ne vu tout il y a deux ans as vu que di am déception vidéo suba suba am permission comme ça ma my a to ci guddi gi. je suis Sénégal defal video, une vidéo que tu billahi wallahi taala Ousmane Sonko que ragal n'a di am déception Sonko du président 2024 parce que bon vous Makino ne ko doo bokk ci député fofu la fofu la commencé sama xel fofu la ñaawé Macky Sall bu la né do nek député nga nangu ko xam nga né dina la do nek président way ya ko tay man sax dama yaakaaroon Sonko day négocier ak Macky ba Macky def 3e mandat parce que temps li taxone moko moy Sonko dafa né Macky même bu am 35 30 35 sax du ko am Sonko dafa bëggone Macky bok moom mu ci la né ki Sonko mi qui di wax Macky même bu bokkee du am 35 pour cent yéen di ngeen am déception ci sawaay temps yooyu yag na ko wax amna na gis nga amna na ko fi seede amna néna amna ko né tabé dit tout ça il y a 2 ans Mbaye Diop merci yow yag nga ma siiw ñoom Assimi Goïta dañu war ci soko dégg na nak Sonko ñu né yónnee na benn nit xawma ma blondé Blondin Diop mu dem ci Assimi Goïta yoy ay ay diversion wa waa dañu dañoo ci sen dom Brimel dafa décourager ba sétane tout sama live dañoo découragé ci ko parce que dañ ne man ñun Casamance xamul kenn xameewuñu lii dellu ginnaaw ñun lan la ñu xamee Aline Sitoé Diatta jigéenu biir la woon di xeex jigéenu biir dañ ko dóor ba mu avorté deret génn ci ci ci ci tubaab bi daka dóor colon bi dakaa dóor ba ba deret génn est-ce que avorté wu dafa avorté après ñu jël ko exil yóbbu ko rey ko moo tax ba léegi ngay dégg euh, euh, euh, Diatta sonko dañ nyala la mamam xawma ñaaling sonko créé ben histoire mit ñaaling sonko mo def li mo def la mo def la mais suñu waji kenn xamul lu ko dal barki rasulallah suñu waji na suñu waji ji na muuma na suñu waji dafa mel dafa lafañ tok këram ne du génn 55 jours man ma fi nekkon di wax mak mak brimet bugg leen ma dégg ngeen topp déglu dof yu mel ne ay Issa Dieye ah dof yooyu nga xam ne au lieu ñu wax Sonko dëgg ñu nekk fii non non affaire bi stratégie la non xeex bi du mortal combat non affaire bi xel moo koy xel waa Pastef ñoo dàq wax koy wax lay mais suñu waaj boo leen ko waxoon dëgg ci cinquante cinq jours yi boo leen ko waxoon dëgg kon heure bii du ñu dal du ñu dal suñu waaj yi da ngeen ko war a wax dëgg kenn xàmmetu ko newoon naa leen ci kayis foofu ñu koy une semaine avant ñuy jàpp Sonko laa dem ci kayis foofu man Macky Sall daf ma ragal de Antoine Diom daf ma ragal barki Rasulaay une semaine là dem ci kayis foofu ma ne leen Sonko mi wax leen ko mu génn mu songu barrage mu génn parce que li du yone ne génn mu ne damay dem julli ji ba xam ndax Macky Sall du koy té une semaine lañ ci teg saawaay dindi barrage yi

mais dëgg mënul lekk ñaar ñaar dafa bëri manipulation nee naa leen Pastef l'opposition ils sont passés pas maître grand maître dans la manipulation dans le fake news dans le dilatoire xam nga la mooy dilatoire tribunal tey non dinañ xeex tey non suba le 17 non waxoon naa leen ko ne woon naa le 17 dina ñëw après ñu ne le 31 waxuma leen ko léegi nee nañ dañuy defaat kii après xam nga fan la ñuy mujj juróom-ñaari asamaan dem clamé clamé malaaka mawti jibril ñoo dàqa lay koy lay moo tax ay avocat rek fa nekk ana maître euh, Tall euh, tour tourpay drone Sonko sera le cinquième président je vous le na seen xel dal ñoo dàqa duul kuy duul billaahi Pastef ni ma leen jéppee waruma sax tuddee Pastef ex Pastef laa leen war a tuddee billaahi yéenay jaam waa Pastef yéenay jaam yéen yaakaar bi dëkk amoon ci yéen dëkk dëkk lëm moo am yaakaar ci yéen deux mille vingt et ba léegi nit ñi di dee ñii ñi leen di tëj ñii seen business ñu koy lakk université yi di lakk ah étudiants yi ngi nii tëj ñu tëj université ñu def ay sacrifice ngeen nekk fi di ñu duul deux mille vingt et ñu amoon victoire bu leer nañ naññ naññ ngeen xulle ngeen xulle ba ba victoire bi rëcc a la len chance le 1er juin le 2 juin ñu une victoire bu gëna a ngeen de Ousmane Sonko tok kërëm ne du génn mais ay ngeen affaire bu du Sonko yeen la yeen yéen ay jam ay vrai lapoto kenn ñemewul wax Sonko dëgg man ma fi de man ak Brimel Brimel la Casamance la dëkk mu Sonko dafa jënd glace. tok këram cinquante jours di entraîner di lek cere mboum di di di di di di ngeen nek fi di def ay ay ay ay challenge benn dugub ah entraînement cere mboum Sonko guen Macky Sall suma jappé 8h daf ma wara a 10h heures mané ha Macky Sall suma jappé jàppee yow doomu Casamance yow yaay wax sa moromu goor mo lay jàpp yow nga nek président de la république du Sénégal Macky 2 ans ñamé wala japp y a di wax ma 8h, heures a Antoine Diom di la tester di toj ce vitre di def ça, di def la au lieu wax Sonko génnal Sonko son 55 jours ñu wara def suñu investiture la poto yu a yi ay El Malik non Sonko pour investiture bi lu wax rek mom la def yeen ay vrai parti Ousmane Sonko xanaa yéen doo leen ay góor amu leen ay jabar seen kër ba Ousmane Sonko moom mooy décider lépp moo koy décider parti loolu doxalu ko parti dafa war a am contradiction comme Ngagne Demba Touré kooku rek moo ñemee wax dëgg moo wax ne plan B bi du jàll Ngagne Demba Touré wax na ko avant six jours avant tegal naa leen ko six jours avant Ousmane Sonko di génne plan B moom yógoon na ko mu ne du jàll Macky Sall dina def li muy def yëpp ba pare naan day bàyyi Issa Diène sax la wax ñëw nekk suñu candidat les ah, les lobbies maraboutiques les puissances étrangères mais bon leen bëggee ma tegal la leen ko may damaa teg vidéo bu sonn nga ñëw bu turé la moo tax boobu ba léegi noppi parti dafa war a am dissension Ousmane Sonko du yàlla du yonent nit kese la dafay juum 2021 dafa juum maa ko mag fuuf ëpp ma xel kiko kiko ko du ki ko dugal ci guuta muy Mamour Diallo ñoo bokkoon classe te maa ko raw Ousmane Sonko ëpp ma xel dàqu ma jàng gënuma intelligent 55 ans mako mak, mag maa ko mag li mu dund dundugu ko barke rasulallah bu len ma xol ni ma jeune ni rek kiko dugal kaso muy Mamour Diallo xamna mo ma bu baax ño bokon classe ma daan jël p xolal seconde ba terminal Mamour Diallo mako raw premier semestre deuxième semestre premier semestre xana dernier année bi

kenn du ko fi ray du am dara du am Macky daf ñu doon jox gu wala au pire des cas armée bi jël nguur gi au pire des cas Macky genn armée bi jël nguur gi yow nga genn 6 heures ne da ngay def déclaration lu parce que muntaha mo la wax gennal def déclaration wala dañ la menacer xawmu lan mo tax nga genn def déclaration di layam-layam di wiri gep budé wax wa Pastef ñoo dàqa wax ci aduna Ousmane Sonko lu mu leen bëgg gëmlo da ngeen koy gëm par force papa Alé lu mu leen gëmloo da bu di len tegal ay berceuse Sonko namonala naa la xaaral ma tegal len lemu ay sénégalais ay magum jëm tok di la seetaan cent mille personnes amuloo dara looy teg li dul ay Sonko namoon naa la may pap Alé ya ñak jom billahi pap Alé ay berceuse la tegal berceuse xaaral ma tegal songko léemu songko Sonko namoon naa la Sonko Sonko Sonko namoon la billahi Ousmane Sonko génne def discours di layam layami Macky Sall dañ ko fi war a jëlee rek xale yu waay waay nañ dem pale waay non waaye bu kenn dem pale ne da ngeen di déloger Macky Sall dañ koy gunge ba 2024 damaa mer ma sànni sama téléphone ma saaga ma ne Sonko jaam nga billaay li nga def nii di nga ko regretter Macky Sall dina defaraat armée bi dina utaat ay gànnaay te nii laa ko waxee nii ko waxee dina dégg ki naan ma c'est exagéré ay lapoto rek ñoo nekk Pastef duñ ko wax dëgg duñ wax ba fi may waxee gi nii yéen ñemewuñu wax Ousmane Sonko dëgg. 55 jours yi da ngeen ko waroon wax saway boo génnul ñun ñooy ñëw génne la est ce que gis ngeen El Malick dem génne ji Sonko est ce que gis ngeen euh, euh, Abbas Fall wala Guy Marsagna Sagna benn yoon lay essayé ñu arrêté leen ñu taxaw ñoom ñëpp dañoo waroon dem kasso jour boobu. semaine 55 jours ñoom ñëpp dañu waroon forcer ñu génne Ousmane Sonko mais lii am tey moo gën a garab quatre mois ci kaso bi ngeen bàyyi ko moom mu ne day toog kaso Sonko la neex parce que Sonko dafa am benn logique boo xam ne kenn mënu ko comprendre saa ji dafa mel dafa mujj àndatul ak sagoom parce que nit ku lay wax ne man damaa bëgg toog kaso musoo ko gis fenn rek laa ko gis Philippines Philippines rek laa gis ay nit ay bandi yu ne Duterte mooy seen président bu soxor boobu léegi bul ñu rey bàyyil ñu ñëw joxe suñu bopp parce que Duterte dafa ne comme da ngeen di jaay dooméram di jaay drogue naan da ngeen di agressé képp ku ñu ne day agressé man xooluma ndax agressé nga agressé woo sa kër laay fekk dañuy dugg sa biir kër bu ñu nee eh monsieur day jaay drogue ñu ne ah day jaay drogue au lieu ñu def enquête duñu def sa enquête Duterte dafay ñëw dugg si quartier ñëw kër monsieur Cheikh dóor la bal bum bum kanamu yaay. drogue ñiy jaay drogue tiit commencé di jébbal seen bopp Duterte billahi wallahi taalaay léegi léegi président boobu sax dem na mais dégg naa doomam mooy ñëwaat après doomam bu jigéen dégg naa bu ñëwee noonu lay def loolu taxoon crime commencé woon wàññeeku fële mais Sonko rek laa mës a gis nit ku naan damay dem damaa bëgg dem kaso Macky boo ma jàppee huit heures danga may bàyyi dix heures nekk kaso di bind ay contumace lettre de non acquiescement yow nan ngay nekkee si bi xotaan naan da ngay bind tribunal Macky Sall boo xam ne munoo fa am dëgg waa Pastef bàyyi la nga nekk fii lu ñu wax rek nga ne tribunal tribunal tribunal ba pare naan da ngay grève de la faim pour delluwaat prison waxoo damay def grève de la faim pour génn mais dama bëgg jóge principal dem Sébikotane waaye Sonko est-ce que ça va sa moroomu góor téye la ci kaso 4 mois nga nangu ko ba pare yow nga ne danga bëgg nekk président fooy jaar Macky du seen morom nangu leen ko parce que Macky daf leen gëmloo ne Sonko mi mit bi nekkoon ci Sonko dama kaa dindi parce que Sonko dafa amoon benn aura dafa amoon benn mythe dafa am benn mystère dafa am dafa mel dafa am lu ko wër du ko protéger Macky loolu la dindi ñu nangu ko Cheikh Bara Ndiaye démb rek génnaat na mu ne Sonko avril lay génn. Amadou moo koy génne Cheikh Bara Ndiaye nee Sonko avril lay génn Amadou Ba moo koy génne Amadou Ba suñu plan B léegi ah xëy na xëy na Sonko lii la li xëy na Amadou Ba suñu da ngay dem ba jaxasoo xëy na Amadou premier ministre li mu nekk euh, euh, Sonko ñu naan moo daan informer Sonko ah ay xaritam yu bëri ñoo ñoo ñoo ñoo formé. pastif xeyna Amadou Ba mo créé pastif da ngay dem ba jaxaso doto xam Cheikh Bara Ndiaye nenañu Ahmed Amadou Ba moy guenné Sonko le 3 avril Sonko bu guenné Macky Sall duggu kaso parce que xamna ñu ne jomay mom du bok légui lool moy suñu plan B on est quand ñu ngi décembre guñ sax guñ sax décembre na décembre légui mu jot. décembre décembre janvier février mars avril le 3 avril c'est le Sonko di Il kaso léegi yéen yen, yen, lii fa lu Il ko jéppi jéppi jéppi Il fa Tay, bon, mu Il Sonko ba mu visiter Sonko la la place ñi ma ma gis ñu seeti Sonko yëpp Habib si seeti na Sonko Guy Marius Sagna seeti na Sonko Cheikh Tidiane Dièye seeti na Sonko euh, Mr Layem Layem seeti na Sonko ak ñeneen ñëpp bu ñu génne lañuy wax mi ngi ci jàmm il en forme Moustapha Diop bañ ko waxee Sonko dafay jóge hôpital dem. Ah, Cap Maniel, Moustapha Diop Wolf, lan la wax ah lolou di c'est une bonne nouvelle parce que lolou day wone ne Sonko arrêté na grève de la faim que nekul ci diggante dund ak dee parce que loolu mooy manipulation gëm lo ne Sonko mi ngone woon grève de la faim mais Sonko daf ñuy manipuler Sonko daf ñu lo ne won mi ngi ci deuxième grève de la faim nekkate arrêté nako ken kenn wax ñu ci dara Moustapha Diop ci bopam mo ne ah boudé yóbbu ko là c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que il n'est pas entre la vie et la mort parce que ñun loolu lañ Japon mais Sonko mi ngi grève de la faim mais Moustapha Diop war na wax lool nit ku nekk kaso nga ne c'est une bonne nouvelle gis ngeen Macky Sall nu mu nu mu nu mu na ba ngeen nangu Sonko nekk kaso lu normal la Cheikh Cheikh Bara ci boppam nee nañu xaar ba avril ci la Amadou Ba premier ministre mooy génne Sonko kaso jël Macky Sall dugal ko kaso ñun duñu ay xale li nga wax c'est très clair nee nga président bi bu buy buy ñëw mooy génne Sonko dugal makki te président bi du doon Jomaay parce que Jomaay du bokk gis nga Bart sax wax na leen ko waa léegi Sonko ñu ngi ko jàpp est-ce que yéen xam ngeen kañ leen jàpp Sonko gàcce fa rek moo génn mu ne place am de prison wax na dëgg boobu ba léegi maa ngi leen koy wax waaye nag bu dee ndeyu mil bi muy suñu président Sonko il se complaît dans sa condition de prisonnier il se réjouit d'être un prisonnier de luxe un martyr nga dégg avocat en porte-parole l'homme au torpédro... le faux ndiagola comment il s'appelle le maître Tad... borom bu rëy bi mu Sonko il a battu tous les records de grève de la faim ndax Nelson Mandela un mois la def 30 jours Sonko def na 34 jours ay vrai dof ñu koy encouragé mu nek kasso. Pape Alé di wax woy Sonko nee dafa bëgg déllu sa xotaan Sonko nee dafa bëgg déllu kasso." bu ndeyul mille bi ci boppam mo bëggul genn. nee len wax len ma kañ la kañ la dugg kasso. ñu bari xamuñu ko le 28 suma ma le 28 juillet le 28 juillet le Sonko dugg kasso. août.

réel Macky Sall mooy c' le père de la nation mais mooy suñu bàyyi Macky dañu nangu xam nga Sénégal tamit booy xeex ak nit ba mu dumal da nga war nangu ne kii nag wax dëgg li doon wax ne tapet la ak léegi mais mooy suñu bàyyi Macky mooy suñu bàyyi moo ñuy président ah moo ñuy wax kañ di ndax dina def wala du def ñaan leen ma ci njëkk ak teraanga ñuy tànnal président ku lay président kay sa bàyyi Ousmane Sonko. Macky moo naan ko heure bi ngay dugg heure bi ngay yeewu parce que prison bo fa nek dafa am heure boy yeewu heure boy teud heure bu ñuy fay lampi 4 mois sa moromu góor téye la ne dem mais koku boko nango, ñun tamit dañ ko wara nangu parce que ñun Sonko li ñuy xéxal Sonko bu démé ba jébbalu ci Macky Sall mais ñun lan lañu wara def ah comme moi mooy xalif général Pastef amul il n'y a pas de voix contradictoire au Pastef dafa mel ne Sonko ni ni Sonko makki ne mu nekkee suñu baay noonu la sonkee nekkee baayu Pastef kenn ñemewu ko wax dëgg parti dafa war a am dissension ab Macky Sall tey boo gisee yàlla teral ko boo gisee yàlla teral ko parce que Macky du làppato Macky Ablaye Wade dégg nga kii moo ko fi nettali am na ko fi nettali Souleymane Jules Diop lay wàdd dañoo nekk réunion mu wax dara Macky ne ko non non ànduma ci Ablaye Wade ne ko génnal boo génnee caméra yaa ngi lay xaar bu la caméra xaale nga joxe sa démission foofu foofu boobu moo doon Macky Sall moo doon président de l'Assemblée Macky Sall ne ko hey yow faluloo ma député ba may dàq dàquloo ma Macky dafa xeex ak Ablaye Wade Ablaye Wade jéem ko tëj ñu ngi naan dem na ci baara seen baara di jooy yooyu yëpp da ngeen koy wax rek di yàq der dañ waxante dëgg naan dafa dem ci sëñ Baara ah boo ci waxul sëñ bi boo waxul ma eh, daf may tëj mais Macky boo delloo nga xoolaat histoire am wax dëgg dafa jëngu ne Karim du fi nekkee président makki Sall dàq ko mu dugg ci àll bi ñafeel boppam mais makki bu nekkoon làppato rek ne lépp lu Ablaye Wade wax rek waaw waaw waaw waaw Wade waaw Wade est-ce que tey dina nekk président du nekk président xam nga même chose moo ndar moo dal. Euh, euh, wa Pastef du wax suñu waa ji ils ont une confiance aveugle une dévotion religieuse pour Sonko c'est extraordinaire Sonko c'est comme c'est comme le Messie Sonko comme Serigne Touba la preuve moom la ñuy wax mooy suñu xalif général mooy joxe ndigal Ousmane Tounkara ci boppam dafa Ousmane ndigal Sonko le tudd lu mu ñu digal rek mom lañuy def même bu ñu nee Macky Sall day am 3e mandat sax Macky Sall day am 3e mandat Sonko da ngeen koy wax deug. combat bi dafa yakku complètement li tax mu yakku nak xeyna na amna raison xeyna dafa méré man man damay tok chaque jour di di xalaat lan mo wara a tax Sonko bayyi ndara bayyi Amadou Ba mu nek président man dama japp ne dafa méré waa yow askan bi waye mere waa yow askan bi est-ce que warna tax nga sacrifier Sénégal ndax Amadou Ba kat boko ko joxee nguur gi moy yow li ñu moy ne ñi de buñu jëlaté jëlaatee nguur bi 50 ans Sénégal day wax de wa legui lan motax nak soko nga dara jël nguur gi jox ko ah, Amadou Ba lu parce que Barthélemy daf la trahir mustapha si da la trahir Ahmed Aïdara da la trahir Cheikh barou doli da la trahir jara Fam daf la trahir Khalifa Sall Barthélemy Dias Cheikh Tidiane die ñom ñep dañ la trahir gatché fall wa legui ñom buñ la trahiré ci ñun nga wara fayu ci ñun. nga ne xeexatuma Pape Alé Niang xeexatuñu yow nit ki jàpp di téegal sa ndey gaa yi ngeen baal ma Macky mi ngi téegal suñu ndey dañu wax dëgg sëñ Muntaxa bugguma saaga Baye Fall ñu ngi téegal suñu ndey kenn ñemetul bouger senegal ñu ngi téegal suñu ndey téegal yu doy waar yoo xam ne dafa jéggi jaw dayoo lii dafa ruslu lu doon góor a ci ñun dafa deñ barke rasulaay jigéen ñi sax léegi dañuy dañuy sabote Amin Ndiaye njibi day toog assemblée nationale di ñu sabote waaw yéen a fi nekkoon boo ko laalee boo ko laalee dinaa la dóor léegi fan ngeen mujjee Sonko na mo la Amin Ndiaye ñibbi moo mooy député bi fi tëjlu woon euh, euh, Masata lépp Sénégal képp kuy góor surtout ñun waa diaspora bi li nekkoon ci góor dafa commencé deñ barki rasulaay Pastef Pastef daf dañoo gàddu suñu àq barki rasulaay billaay Pastef yéen ay jaam ay vrai jaam ngeen da ngeen naa gàddu suñu àq parce que doo leen ay guerrier vous n'avez pas l'instinct de finisseur vous êtes des rêveurs vous êtes des idéalistes Macky Sall du seen morom parce que Macky Sall sanguinaire la gis nga sëñ Mountakha lu tax nga koy fan dafa xam li mu bëgg te da ciy dem ba jeex booy bas mi ngeen di xas guerrier la Macky Sall mi ngeen di xas man jikko bi nek ci ñooñu la bëgg mu nek ci wa pastif nit boy xex da ngay xex bo xexul nga def comme pap alenia xexatuñu wa xexato kon may leen nit ñi jamm xexatu leen may leen nit ñi jamm mo gën ngeen di gëna duggal nit dox nit dof ngi ni ngeen sacrifier wat ko bu leen nit dof bu ko leeru ne xexatu leen dina fi nek di saga wat, ñu ko duggal ko ñom Karim khurum Xax dara day ci kasso bi au nom de quoi au nom de quoi xexatuñ ba nga xamé né do xex lutax nga commencé xex yak fi université tal fi tal fi tal fi ngeen duggal nit ñi diaspora bi nit ñangi ni ñu bëri mënatuñ delu Sénégal ku delu Sénégal ñu lu tejj la ana Hannibal Djim yàq carrière am ana jigen bu nekkon Suède ñew ñu japp ko tejj ko ngeen sacrifier leen ñew ba heure bi ndara jël nguur gi ko Amadou Ba Il fofu que vous jëm té sen lamine dafa neex neex neex néna len ils sont passés maîtres dans la manipulation pastif... dans le dilatoire chaque jour rek tribunal le 17 le 25 le 31 non xaar le 20 janvier Sonko day bok xaar 25 février tabaski Pape Alenia... 25 février moy tabaski di len dilendik. di len di comme 2021 rek ba ba dernier moment. Ousmane Sonko ñëw jël parole bi wala mu génne benn déclaration Macky Sall lañ koy gunge ba deux mille vingt neuf Amadou Ba lañ koy gunge ba deux mille vingt neuf barki Rasulaay foofu la ñuy mujj waa Pastef dañoo garaaw fake news ñoo ci gën a ay xoolal ba le passé Sonko day def déclaration wéy Sonko day def déclaration ñëpp Sénégal yëpp taxaw ba ministre de la justice sax dafa tiit génne communiqué wax Sonko nan la dafa génne vidéo dañoo sont manipuler Ils seen bop ñoo Ils Sonko day nga d'or. d'ici quelques jours son day génn Macky Sall nguur armée fake news sur fake news Pop Alenia. Son Sonko day sont ci ni wala nale Sonko day manipulés. Ils plan B man ma dugg kayis Ils jour bi jour bi 111 candidat ci ñu may saaga di ma saaga ma ne leen saay ñii ñii plan B la ñu nar a indil billaahi wallaahi taala nii laa ko waxee ci kay sof kay sof dem leen ngeen seetaan laay fa boobu ñu may saaga Mister Shake yow loo bëgg da bëgg taar réew mi patati patata ma ne leen ñii Sonko mii du bokk Sonko bëggul bokk Sonko dafa mujj tàppet loolu laa doon wax gars yi di ma saaga Sonko dafa ragal Sonko jébbul na si Macky Sall ñu ma la nga bëgg da nga bëgg ñu taal réew mi peut-être mané ne leen warul nekk ci kasso bi lu tax mu nangu nekk ci kasso bi boo demee dafa def deal Papa Alé ya di ñu wax ay ay Cap Manuel ñii am na lu ñu pare de plan B dama génn kay foofu ne xaaral ma dem def sama live ci sama biir live lañ ma informé ñu ne déclaration bi am na ma ne leen ñii dañuy sóob rek amul déclaration ñu ne ma 4 heures ba ne la waa 4 heures jot na ñu ne non non 6 heures. ma ma nekk ci kaw suuf ma ne la waa 6 heures jot na Pastef bàyyi leen duul bàyyi leen manipuler yéen xam ngeen ne Sonko du def benn déclaration yéen a ko tey bàyyi leen duul plan B rek ngeen ñu fa bëgg indil ma bàyyi kaw suuf dem di def sama live ci biir live bi sama benn abone ni ma affaire bi génn na jomaay mooy suñu candidat ma ne ko ah ci laa del delluwaat ci kaw suuf di leen di leen commandé di wax waa ana ñi ma doon saaga Pastef dañoo mën a manipuler. Ousmane Sonko da ngeen war a comprendre benn affaire xeexatul Sonko xeexatul xaw ma dafa sonn mentalement gars yërëm leen saawaay saawaay da ngeen ko war a yërëm li nekk ci bopp bi xajul ci bopp nit il faut ngeen di xalaat Ousmane Sonko li nekk ci bopp Ousmane Sonko. mën na dofloo nit barke solilaay mën na dofloo nit nit yi dee parents yi di la woo ñi ñu jàpp tëj leen seen parents di la woo nan la ah waa Karim de non doo faxe mu génn ah waaw Falla Fleur doo faxe mu génn xanaa da ngeen fàtte ne Sonko def na grève de la faim pour ñoom Falla Fleur li nekk ci bopp bi <coughs> secret yi nekk ci bopp bi depuis deux mille vingt et ba léegi. surtout nak depuis bobu ba léegi ba day dem prison gaay yi do dem prison xéxal ko mu génn sëriñ yi di ko France diko ko Amérique diko ko xana xanaa da faté. fàtte Élysée ci bopam Macron ci bopam yónnee won na ben envoyé spécial mu dem seeti Sonko ba Fran ba Macky Sall di sóob mel kuy attaquer Macron ma ne def leen attention ci le ki waxé Nathalie Yamb ne Sonko defal ndak fal France dañ lay manipuler mu fi di recevoir ay français def len dank lolou def na ci vidéo imaginez len envoyé française bu bu ñëwee lan lay wax Sonko bayil gatsa gatsa après dinañ la japp nga nek président muntaxa lan lay wax Sonko defal li defal la defal la Cheikh Bara Dolly woote Habib Sy woote kii woote mais lolou xagn na ci ben bopp nit te yow nga am jabar sa doom wara dem def bac ñu tëj la cinquante cinq jours ngay hésité damaa war a xeex waruma xeex ñoom Pape Alé Niang non xeexal bu xeex ki ñaata jour ñaata téléphone ñaata message téléphonique la Sonko di am par bu nekkee kaso fi mu nekk instant yi may wax ak yéen gars yi ngi dem ku ñëw wax lii wax lii mais loolu est-ce que xaj na ci bopp benn nit moo tax Pastef daf ci am responsabilité cadre Pastef fii ñoo waruloon nangu lépp rek Ousmane Sonko centraliser lépp dégg ngeen Pape Alé Niang live bi mu wax il y a trois semaines ñoom Macky Sall dañ ne Sonko dafa dof parce que ba mu defee grève de la faim bi dafa commencé di wàccu commencé di perte de mémoire commencé di am ay trouble de mémoire affaire yooyu Pape Alé Niang dafa génn mu ne Sonko weddi na Sonko nee na li am yëpp man la li xew fan yii yëpp man la mooy cinq yenn a ngi fàtte ba ñu jékki-jékki ñu ne na cinq personnes dem ut euh, euh, euh, parrainage Sonko nee na man la woon. après mu jékki-jékki mu ne buleen leen bu leen ut Sonko nee na man la léegi 111 Sonko mais loolu est-ce que c'est normal Sonko moo ñu moom moom moom Pastef ba moom rek booy décider yow général boo xam ne dañ laa dañ laa wóolu mais six yi ban ban résultat la ñu indil affaire bi ça doit être donnant donnant ça doit être montant cash dañ laa wóolu da nga war a livrer victoire mais Sonko ban victoire la ñu fi livrer six yi. 2021 dañu am victoire bu leer mu jël suñu victoire jox ko su Muntaxa ak Macky gaay yi wóoruwaat ko mu indil ñu victoire nekk maire ñu gagné maire yëpp mu indil ñu victoire assemblée nationale ñu nekk sur la bonne voie mu mu def lu lu ñu doon xaar ci moom li ñu doon xaar ci moom moo daan affaire Adji Sarr moom bu ko fi Macky Sall laalee dinañu taal réew mi Macky sopp indi Mame Mbaye Niang indi aji Sarr Sonko daw Ziguinchor 15 jours Macky ñemewu ko laal Sonko def yu fu guerrier ne maa ngi dem Dakar libérer prisonniers yi cooki fin yéen a ngi rappelé foofu ñun loolu lañ doon xaar ci Sonko Macky Sall ko Sonko fexe ba rëcc dugg ci clando dugg ci àll bi. yéen a ngi rappelé Sonko ba mu nekkee ci àll bi def benn live dugg ci clando fexe moom kese mu dugg ci oto pour rejoindre Dakar def dialogue de patriotes xaw ma parce que temps yii Khalifa Sall mi ngi dialogue ak ak Macky Sall le 30 le 28 ñu jàpp Koungheul non xaw ma xaw ma lañ ko jàpp le le 29 xaw ma le 28 ñu jàpp ko Koungheul xam nga ñun loolu lañ doon xaar ci Sonko te li mu wax loolu la am. dañuy dem pour cooki fin aji sar bi du jall Macky Sall jàpp ko aji sar Sonko joxewutul ndigal bañu bañu joxe ñu joxee verdigu Adji Sarr ci le deuk bi tak deuk bi tak ñu am victoire bu doy waar Macky Sall bàyyi troisième mandat loolu convaincu Macky mu 3e mandat parce que Dakar dafa tak Macky moo ne lu fi amone du fi amaat mais surtout nervi yi ñu filmé France 24 filmé ko Le Monde filmé ko Branco def euh, euh, euh, dossier CPI Macky Sall Il y am ay députés européens yu génn ne ko wa yow troisième mandat bi Aïssata Fall nga faté Aïssata Fall parlement européen ben député tchèque ne ko di troisième mandat participatif lolu nak mom motax tax Sonko nak ba Macky ne defatuma troisième mandat mu yakane Ils bi Sonko dal di relax fofu lu djoumé puis fofu nak waaw pastif ñoo ko waroon dooleel ne il faut que nous ñu ñu continuer pression ci Macky sinon dina la jàpp waroo nangu Macky jàpp la Macky bu Nous avons nañu xeex comme yaa waxoon yaa waxoon da nga sa nañu Macky Macky c'est le plus grand bluffeur du monde joueur de poker là..! barki rasulaay ne woon naa leen Macky Sall bu demoon Las Vegas champion du monde poker barki rasulaay kenn du ko gagné Macky dafa mën a bluffé day tenter lépp day yor un milliard ne un milliard yore kii lay yor de carte bu bon la yor setu trèfle la yor dafa mel ne mooy bëlët rek Macky setu trèfle la lay lay yor mel ne ku yor vale bu demoon Las Vegas di def tournoi yooyu ñuy def poker kenn du ko gagné Sonko tamit dafa waroon dëggal boppam Antoine Diome ba mu ko waree waruloon nangu mu wër ko cinquante cinq xale yi seen yaram dem ba dee kenn xeexatul non xeex jeex na man waxatuma xeex xeex jeex na encouragé tuma kenn muy taal nañu nangu ne Macky sàll jaar na suñu kaw nangu leen ko léegi xam nga la moo des dundee yaakaar Amadou Ba bu nekkee président xëy na du comme Macky Sall parce que Amadou Ba lu bon bon am na ay rapport ak Sonko loolu la Sonko bëgg xeex c'est trop tard bu fi kenn waxati waxu Tal, waxu xeex. parce que ñun ñoo seetaan Macky Sall jënd 45 milliards armes ut ay nervi police bi ànd ak moom gendarme bi ànd ak Si bu ñu naraatee xeex day metti trop trop trop le pays va basculer armée bi sax mën jël nguur Sonko mën dé makki Macky dé wa dee yu bari dé suñuy famille dé ñëpp dé Sénégal yàqu c'est trop tard pour xex comme Sénégal lamb ngeen gëm Sonko aussi lolu Sonko aussi lolu amna lu xeyna dina am lu mu jouer ci moom comme yéen ay lamb ngeen gëm ay volet sous ay xeneen surtout lamb ji Sonko na na toog Sonko ne tok. comme moom Sonko moom pare pour tok kaso deux ans Sonko parrain pour tok kaso deux ans ba Amadou Ba di ko parce que dafa découragé moom waxoon na ko sax ba muy dem kaso loolu wax Facebook maa ngi dem kaso ma bàyyee si vous abdiquez lolo la si vous abdiquez moi je vais me remettre à Dieu nee na maa ngi dem kaso boo ma bàyyee nag xeexatu leen ma wakkirlu ci yàlla Sonko pare na pour tokka so ñaari at makki dotu ko torturé makki du ko man dama don ragal makki torturé ko wala mu ray ko mais comme makki torturé wul soko parce que mi ngi bay ni ñi ñaa mais na tok bu toogee 2 ans Amadou Ba bu koy bal mu bal ko tok len foofu rek di wax ay 111 ak <laughs> ama depuis depuis boobu legui lepp lu ma leen wax gis ngeen ko comme yeen ay lamb ngeen gëm mais da ngay xool li keroog keroog vingt personnes ñu ngi seetaan euh, euh, face à face modulo boyña man ma fa nekkoon di leen wax yeen yéen ay làppata ngeen yeen a lamb ay Pa ay may nek ay multimillionnaire mustapha Guèye nek multimillionnaire doomu Pa Bécaye mbay Abdou mbay di dawal auto di laal parce que kon signature contrat yi ñom dañ ci am Bécaye mbay boko joxul 50 millions du du du du la defal promotion minimum 50 millions ba Bakay wala 100 millions lay laal barki Rasulaay parce que Macky Sall dafa jël ay milliards tour ko ci lamb bi ci fin d'année bi xool len combat choc yep ngeen gis Modou Lo euh, Ama balde Modou Lo musul beug ñame bëre ak Ama balde waaye ay milliards lañ leen jox Modou Lo kañ la fi beure war fi wat Eumeu Sène kañ la fi daanu war fi wat comme ko def ne comme yeen xalé yi xalé yi moom du leen condamné parce que xalé xalé la xalé dafa inconscient lamb rek leen dese mais pa yi ño waron am conscience ay pa bekay mbay ay mustapha gueye porte de voix ño waron am importance xam xam ne dekk bi fu mu toll nii waruñu wax ay ver lamb mais Sénégal ku nekk sa bop ngay ràccal déglu leen li boy ki wax jëkkëru ndey Guèye bi nan la tuddu papa boy jinne nee na Malick Ndour moo leen recruté woon pour ñu liggéey ci 15 jours yi xeex amoon ba ñu jàpp Sonko Pape Malick Ndour moo leen recruté ba pare bañ leen jox seen xaalis pour lan lan leen recruté ay nervi la ñu woon yow nan ngay nekkee jeune pap pap pap booy jinne wala Papa Sow nan ngeen nekkee ay ay ay sénégalais comme ñu ministre invité jël leen wax leen utal leen ma ay mbër ñu jox leen ay gànnaay. ngeen di song seen mbokk Sénégal lu tax parce que da ngeen a sonn parce que Ndeye Gueye jeeg bu baax la amuloo looy fay location sonn nga yow nga ne sama bopp kese sénégalais loolu mooy suñuy teg ku nekk sa bopp ngay lijjanti léegi kenn bëggul sacrifier parce que Macky da leen a kii fa la maintenant la may comprendre ju mel ne Pape Boy Djiné yi dama leen di comprendre parce que nga nekk ci réew amuloo liggéey amoo dara boo amee làmb deux cent mille lañ la fay trois cent mille nga am djeg bu melni ne célébrité ndey ndey ndey ndey géej bu la Pape Malick ñuy ñëwee ne la 200 cent mille ngi nii wala 300 cent mille ngi nii demal nga tirer fi wala nga sànni lacrymogène yow sa inconscience nga dem def ko Sonko loolu yëpp lay gis mu ne peuple bi est-ce que jar na jar ak li ma leen wax yep est-ce que di ngeen setan Macky Sall japp est-ce que di ngeen ko setan waye bu leen Sonko mënul di ko di xass xalé yi de. parce que xale yi boo leen ne toog leen seen kër bu leen xeex mais dañuy toog seen kër xeexuñ Pape Alé Niang moo ne Sonko nee na déglu leen ma sëñ Mountakha jox na ma tàndarma maa ngi koy ñeewantal déglu leen ma loolu kay mooy bu leen xeex bu leen ma jël si mës ngeen dégg Sonko mu ne booy ñëw leen fekk ma principal ngeen jël si ma musu ko def parce que buggul génn bàyyi leen xaalis dakaar yi ngeen di xas xale xale la man ba ma amee vingt cinq ans trente ans mais damay seetaan làmb comme ñëpp na dëkk bi tàkk sama yoon nekku ci waaye Modou Lo mooy sama mbër moo may dundal bu Modou Lo daanoo daane day mel ne àjjana ci man ma fàtte samay problème xale yi xeexal nañ leen ñii sa loxo dagg ñii dee jox nañ leen première vague jox leen deuxième vague yéen a jël victoire bi jox ko Macky Sall dafa mel ni ci système bi ngeen bokk barkeel solaay le système a ses tentacules système dafa garaaw nga yaakaar ne système da ngay ñew rek kélé ko fi da nga yaakaar ne réew da ngay ñew rek Amadou Ba jox leen réew mi tay ngeen dé yeen ñi fi nekk di dundé yaakaar billahi wallahi taalaahi Amadou Ba daf lim ko léré né moy nekk président xana lenn makki dem ba ci biir xel bi jaxasoo parce que déjà Cheikh Bara ndjay mi ngi jaxas xel Macky Sall Amadou Ba moy plan B Macky Sall mooy plan B Sonko Amadou Ba moy suñu cheval de trois nekkete ñuy wax yëpp nekkete Amadou Ba mooy suñu plan B moo ndara ñëw génne Sonko trahir Macky Sall comme président euh, Mauritanie bi nu mu def jël kooku dugal ko ci kaso bi jël Macky Sall dugal ci kaso bi jël Mame dugal ci kaso bi génne Sonko def ko premier ministre loolu ngeen di dundee yaakaar loolu loolu amul ne Amadou Ba nag mën na nekk mënul mën na am mooy tane Macky Sall parce que Macky moom wax dëgg ni mu ñu massacré gëmmu ma ne Amadou mën nañu massacré noonu waaye ku yaakaar ne Amadou Ba mooy plan B wu loolu da ngay foowee ndax Amadou Ba la bokk Amadou Ba lenn mën na ko def bu nekk président xam na ne. mënul continuer di xeex ak Sonko loolu moom c'est sûr Macky dem na kon il faut que mu bàyyi Sonko mu nekk ci jàmm mais lenn rek la mën a def mooy mu jël Sonko mu ne ko demal nga toog sa kër résidence surveillée boo toogee six mois defoo dara après mën naa résidence surveillée mais il faut nga yem sa place waaye ku yaakaar ne Amadou Ba day jël palais président dafa neex ku yaakaar ne Amadou Ba day jël nguur gi jox ko Sonko da ngay nax sa bopp te Amadou Ba amul doole. Macky Sall moo yor doole bi Amadou Ba nekk président il faut mu dem six wala un an pour dindi nitu Macky Sall yëpp benn par benn dugal ay nitam waxtaan ak Diome waxtaan ak Sidiki Kaba ba ñu d'accord mu xam secret fan la gànnaay yi nekk ñan ñooy force spéciale yi ñan ñoo loyal ci Antoine Diome lan moo tax makki dindi Antoine Diome intérieur parce que Antoine Diome bu ko mak dindul won Antoine Diome moy nek loolu l'homme fort du senegal barki Rasulaay am lu muy deme def coup d'état mok general Moussa Fall lan motax mak Macky ko yóbbu ko ci pétrole bi lan motax mu dindi Ismaïla Madior parce que Madior dafa dem ba commencer contrôler ay juge jël ay nitam tek fep Macky Sall dafa mous motax mu dindi len tekay dalé Amadou banabe non lay demee bu ñëwee yag yag li Macky Sall def yëpp da koy dindi mais nag Macky li mu def mënoo ko dind ci six mois parce que Macky daf lay xool da lay surveiller boo ko trahir da lay da lay da lay gonku li moo tax mu ne man su ma nekkee président Macky yow yaay yaay président Macky nag li mu bëgg def dafa jafe comme Poutine li mu defoon Medvedev toogal ma fii cinq ans après ma ñëw ma nekkaat président Macky mënul loolu mënu ko réussir moo tax Macky dem na ba ci biir mu xam ne loolu mënul ne bu ne moom day dem G20 Macky xam na ne li mu bëgg mënul nekk parce que sénégalais yi ñoo pare ci moom affaire bi li ci doy waar mooy boole ma laaj Sénégal kan moo ëpp doole fi mu nekk bi laaj leen ma kan moo ëpp doole Sénégal entre sëñ Mountakha Macky sàll Sonko Amadou Ba laaj leen ma même si li mu nekk situation bi mu nek ba legui mo té Sénégal ci loxo billahi wallahi taala ba legui Ousmane Sonko moo téye loxo ci Sénégal sëñ Mountakha xamna ko Macky Sall xamna ko Amadou Ba xamna ko Sonko c'est l'homme fort waye li nek ci bop bi la kenn mënul comprendre Sonko c'est l'homme fort du Sénégal moo yor Sénégal Tu le moom ak Macky Sonko après Sonko Macky après Mountakha xëy na Ba qui contrôle Sonko contrôle le Sénégal fi mu nekk nii kan contrôler Sonko Macky Sall c'est mais est-ce que nous ko contrôler FIBA 2025? 2024, le 25 février. tout est parce que Sonko dañ kaa noor dañ kaa jat instant yi dañ kaa jat est-ce que jat boobu ñu ko jat dina continuer ba 2000 depuis depuis bañ ko barricadé ba léegi dañ kaa jat dangar bi nekkoon ci moom moom la ñu xaw ma nag par quel moyen man affaire liggéey gëmmu ma xaw ma ndax dañ kaa liggéey xaw ma ñu ndax dañ kaa menacé de mort wala ñu menacé euh, Anna Diamanka de mort téléphone yi ñu nangoon ci moom parce que foofu la commencé ak ordinateur est-ce que daf ci am ay affaire yoo xam ne c'est très compromettant pour Sonko xamuñu mais ba léegi ñoom ils ont contrôlé Sonko Macky Sall sax neutralisé la wax dama ko neutralisé ba Macron Macron bu demee ba am fit di di tagg Macky Sall dafa mel ne loolu combat bi jeex parce que bu njëkk ba Macky Macron moo daan merlo Sonko Sonko fu Macron génnee rek Sonko daan génn la preuve Macron dafa wax rek defe naa ci la ci la ñu indi Diomaye Faye mais Macron bu demee bay tagg makki Sall di ko wax ne yow danger bi ndaroon am Sénégal nga ñëw nga dindi ko vraiment yow tu es un homme fort patati parce que da ngaa gis ay salafiste ndaroon ñëw ay terroriste ndaroon ñëw sa dëkk nga dind ko yow vraiment ñoom Macron dañoo am ay garantie yu wóor que ne Sonko pare na. parce que bu njëkk ba sax daanuñu sax ñeme di gaaruwaale gisoo Bart Bart sax mi ngi génn di wax di gaaruwaale léegi nag problème bi mooy ñun le bas peuple dañuy bàyyi dans l'ignorance di di ñu dikk non bu leen yàkkamti affaire bi stratégie la non Sonko am na lu mu denc non xaar leen 111 lay doon non garaawul il va être président maître Tall Sonko sera le cinquième président Cheikh Bara Ndiaye di la waatal Amadou Ba billahi wallahi taala du nekk président Cheikh Bara Ndiaye foofu moom waxoon nga ne Macky du du toog de nga waat ko boobu d'accord waaye Amadou Ba du nekk président loolu de du ma ko waat fenn barke Rasulullah du ma ko waat fenn xanaa lenn Macky sal dem ba ci biir. ne man daal damaa juum ci Amadou Ba loolu rek moo mën a tere Amadou Ba nekk président ku yaakaar ne élection mën na fi jëlee Amadou Ba ak ak Antoine Diome ñoom ñooy organiser élection yow xanaa yi seetaanu leen euh, kii waaye man téeméer laa tegal nga njëmbatu rek non bu ko ma fi nekk di perte temps yéen xanaa déggu leen nga njëmbatu rek li mu wax. élection yoo xam Macky Sall dafa jël ay préfet teg fépp moo yor Sénat moo mooy jël Sénat mooy commission électorale Cour suprême les lobbies maraboutiques France ñoo ñëpp dinañu seetaan Macky Sall noot Sonko ba mu noot ba sonkoo ne pare naa xeexatuma defatuma déclaration parce que tamit gis nga nit booy xeex da ngay def déclaration chaque jour <coughs> waaye Sonko bu defee déclaration te toog 15 jours doo ko defaat beneen déclaration. Facebook post Facebook Amour, kenn ci qui ku mën a jël responsabilité di di di ñu informer chaque jour même grève de la faim bi kenn waxuñu ne dafa jeex kenn waxuñu ba fi ñuy wax génn waxuñu kenn musul génn na la Sonko Arrêtez na grève de la faim manipulation la ñuy def la faim ne justifie pas les moyens c'est pas parce que nit ki da nga ko war informer waaw dañ leen di manipuler comme ay xale ba pour mu jël Pape Alé kañ la gëj def live temps yëpp dafa sonnal nit ñi live live live mais ñu nekk ci moment crucial mu def live benn jour toogaat deux jours deful live léegi toogaat na deux jours deful live gars yi yéen ñi gars yi yéen la ñuy manipuler man mënuñu ma manipuler parce que maguñu ma barki Rasoulaay c'est des grands manipulateurs Pape Alé Parce que c'est les ce sont les as de la manipulation

de toute façon boo leen doon woote xeex kenn du jàppale man de dootuma leen jàppale ci benn xeex parce que man damaa jàpp ne yéen lu ngeen yàgg na bu fi kenn nekk génn naan da ngay taal da ngay xeex jaru ko comme ñoom nee nañu kaaw a baaxul xaaral ma génn leen papaale ngeen xool nu muy manipuler nit ñi bu defee laay tey temps yële chaque jour mu def live deux day def laay ba pare invité nit

avant Il tok na 5 jours Il tok na 4 jours de live life. Je ni say man man analyser rek lay def lire le 5 days ago dafa tok 4 jours deful live pap alenya demba ki demba mu def live mais demba gisuma deful live avant bobu tok na 3 jours avant 5 jours tok na 3 jours full live waaw mais xool leen avant boobu chaque jour mu def live chaque jour chaque jour parce que parce que bu génnee lan lay def jàmbat rek jàmbat waxul nit ñi manifester leen waxu leen marché leen waxu leen euh, euh, euh, Cour suprême lii la wax waxu leen Sonko <coughs> pap ale live am fenn la waroon am sens Sonko mi ngi ci condition yi Sonko mi ngi ci condition yaa Sonko mi ngi ci jàmm nekkul jàmm Sonko kañ la war a génn kenn du ñu wax Sonko kañ la war a génn léegi daal Sonko dafa mel ne dafa wax papaale man garaawul damay toog ci kaso bi deux ans su ma toogee deux ans après lu am rek ma xam ne noonu la Sonko loolu dafa mel ne loolu décidé man daal maa ngi kaso maa ngi Cap Manuel ana jamankaa mi ngi jaar am naa visite conjugale maa ngi entraînement indil nañ ma sama vélo maa ngi lekk maa ngi naan kenn torturé wu ma sama yoon nekkatu Sénégal waaye mais au moins nga wax ñu ko am nga droit Sonko am na droit mu def loolu mais au moins nañu wax moo gën xale yi ay nit dof di wax fii ñu leen di jàpp di tëj ñeneen ñi di xeex ñu leen di rey Macky Sall di gën a soxor xeexatu leen wax leen ñu ko doo leen bokk wax leen nañu duñu bokk moo gën ngeen di tas yaakaar nit ñi man man man fi mu nekk saa yu ma nelawee macha allah maa ngi nelaw. nelaw yu neex parce que sama xel dafa dal parce que xamna li wara am li am moy Amadou Ba moy nek président Sénégal man dama ka nangu nangu nako xana len Macky Sall comme limu wax rek Macky Sall dem ba ci bir am liñ wax bias remorse américain dox bias remorse nga jënd dara dem ba ci bir xamna li nga jënd baxul ngay reccu xana Macky Macky dem ba ci bir dal wóolatul Amadou parce que Cheikh limu wax mi ngi jema xelu Macky waaye Cheikh Bara li wax c'est dangereux Cheikh Bara Ndiaye li mu wax c'est extrêmement dangereux parce que ni mu waxee Amadou Ba mooy plan B Ousmane Sonko Amadou Ba premier ministre mooy ndara traître boo xam nek nekk te Sonko ñoom ñaar ñoo doon julleendoo dégg Amadou Ba bu su bu bu ba tànk ba dàll bi tooy. bu summee moko wax de te nee na Amadou Ba moko moko netal dafa juum nak Cheikh Bara dafa juum dafa ne duma wax kan kan moma ma mais ci ñaar ñi ci Sonko ak Amadou Ba amna na ku ma ne bu ñu bu ñu domaine bu julé bu jappé ba carax yi tooy Amadou Ba day summi lolo wax de dafa ne duma wax kan la duma ne Sonko la duma Amadou Ba way ñom ñaar amna na ci wax ne bu julé ba japp carax yi Amadou Ba day summi jox Sonko mu xamne ne juum na wala Sonko summi mané ko fofu nga daano kon Amadou Ba moko wara netali moko netali Amadou Ba netali nettali Cheikh Bara nek ko Sonko ay xarit lañu ba ñu nekk impôt domaine bu bu ma jullee bu ma summé ci raxi Sonko moy sol après mu wax né mu wax né ana jamanka yayam ak Amadou Ba ño bokone impôt yaay Aman Jamaka foofu la def liggéey ba retraité avant boobu Amadou Ba yóbbu na yaayu Anna Jamaka muy jabaru Sonko mag avant Sonko muy xam Sonko avant Sonko di nekk ci politique ba Sonko nekk politique tamit terewul Amadou Ba yóbbu na yaayu Sonko mag encore yaayu yaayu Anna Jamaka mag mu ñaari yoon Amadou Ba temps yële am na gaañu woon moom dégg naa Sonko dafa dem mu jaale ko Sonko tamit. est-ce que amul Amadou Ba jaalewu ko Amadou Ba euh, euh, euh, waa Pastef yu bëri <clears throat> ay xaritam lañu ñi nga xam ne ñoo ñoo fondé Pastef Amadou Ba ba ba Sonko nekkee impôt domaine commencé di wax ne Macky Sall dafa sàcc ak dafa def lii dafa def laa di génne ay secret ci la ministre boobu bëgg ko dàq kan ban ministre la ab Boun Abdallah Dionne dañ koy dàq Amadou Ba dafa ne kenn du ko dàq kenn du dàq Sonko dañ ko wàccee wala ñu affecté ko kon yàgg na défendre Sonko Cheikh Bara Ndiaye loolu lañu bëgg jaay gars yi dañoo ay ci manipulation Cheikh nee naa sama sama sama idole la de waaye terawul bu mu ko waree wax dëgg dama koy wax dëgg de moom it dañ koy use ci manipulation lan moo tax ba mu génnee prison ba léegi lu ko neex wax kenn du ko jàpp <coughs> lu ko neex wax kenn du ko jàpp Cheikh Ndiaye lu tax li mu wax ni dafa graw waroon nañ ko ci mën a mais li wax dafa arrangé Amadou Ba

nit waroo ko yéene mu nekk kaso mu nekk na kaso 4 mois ba pare ko nekk na kaso 4 mois ba pare nga bëgg mu toogaat yeneen 4 mois xaar moroomu góoram génne ko te ñëpp xam nañ ne du doon jamaay kon Amadou Ba rek moo ko fu mën a génne parce que moom du ko génne Cheikh Bara loolu nga ñu bëgg gëmloo manipulation la <coughs> c'est de la manipulation dafa mel na rek ba mu waxee ne moom. xasaayu sëñ Touba bi moo tax mu génn kaso parce que jàng na ko cent fois Cheikh Bara ñoo bokk HLM de ndax ci rasool lay sama idool nga de waaye bu ma la war a wax dëgg dama lay wax dëgg <coughs> xasaay anti ni ko Fatou Ndiaye tuddee anti prison amul yow ba nga nekkee murit ba léegi sa papa nekk murit sa papa nee xaw ma magee na la xaw ma ñaata at la la magee xaw ma 89 ans la la magee xaw ma ba muy am 80 ans la la judd sa papa nekk murit mosoo deg xasaay seigne Touba buy génne nit kasso nga baye ba dem kasso 2023 comme par miracle ci la xasaay anti-prison doo ko génn la ko nit ñi xam mosoo ko xam nga jang ko 1600 fois 40 jours 40 fois par jour pendant 40 jours 4 fois 4 16 xasaay anti-prison 1600 fois ci le, le gentle juge Mamadou sec, wo la jox la liberté provisoire waye procureur dafa interjecté appel. kon kay xasaaj boobu efficace ul boobu xanaa moo tax lu instant yi lu ko neex wax <coughs> Cheikh Bara <coughs> yéen xamu leen politique nu mu grave fi mu nekk Cheikh Ba Cheikh Bara boo ko Macky naroon jàpp sëñ bi taxaa daanaan ko jàpp <laughs> parce que boo ko jàppee kon dañ naan xasaay anti anti prison bi mu doon amul <laughs> Cheikh Bara Macky gëmul yooyu ci diggante bi mën nañ la jàpp nee nañ xasaay boo ko xamee doo dugg kaso bu la fekkee kaso da ngay génn kon lu tax jox leen ko Sonko mu tari ko nga nekk fi di wax ne le 2 avril Amadou Ba mooy génne Sonko waaye yow doo jël kasaaj bi nga jox ko Sonko mu génn léegi léegi léegi kon yéen bugg leen Sonko génn bàyyi leen manipulation Pastef bàyyi leen manipulation Sénégal bàyyi leen manipulation xasaayit entreprise amul xasaayit développeur réew amul xasaayit tere xale yi dem ci mbëkk mi amul. amul bàyyi leen manipulation Sonko kenn téewu ko kaso ku dul boppam billaahi wallaahi watalaahi Ousmane Sonko mo téye bopam kasso Sonko c'est une figure énigmatique moo leen ko rek ex-Pastef du bokk waaw waaw <clears throat> fan lañuy jaar bu bokk Moussa Lamy xam nga lan motax ex du bokk parce que Sonko mo bëggul bokk mooy li may expliqué ni dama leen koy waatal ana ana ana jant bi fu mu nekk tey jant bi dafa làqatu dafa mel ne côté bii la nekk billaahi wallaahi wataalaahi man Mister check bu dee li may wax amul su ma dee bu dee safara am na su ma deewee yàlla na ma yàlla jël ci safara bi dugal ma fa ba ilaa yow mi di Ousmane Sonko moo bàyyi boppam kaso Bakke Rasulaay bu bëggoon génn suba suba suba génn li may wax dafa garaaw

waaye Sonko bugg ko buggul génn lan moo tax buggul génn moo ko xam am na ñu ne xëy na taal réew mais lan moo tax bëggatul nekk président moo ko xam moom moo waxoon amul dara lu ma mën a tere nekk pré candidat moo ko waxoon kon wax waxeet am na fi moo ne woon man Macky su ma ko jàppul mënuma jàpp te dëgg la. Sonko bu jàppul Macky Macky mënu ko jàpp moom la neex nee naa leen dem wax naa leen ko Youssou Ndour way na ko sëñ Bamba daf ko neex mu dem géej bu ko neexuloon du dem géej maam Bamba Sonko daf ko neex Macky téye ko bu ko neexuloon Macky du ko téye Macky xam ne ne Sonko moo ko ëpp doole fuuf lan la mën a def Sonko rey rey rek la mën def Sonko waaye nit koo xam ne boo ko reyee moom yow tam dangay ngay dee wala dëkk bi jaxasoo ko kay mënoo mënoo loo ci moom dara Sonko li mu doon wax dëgg la Macky mënu ma jàpp. deug la de parce que nit ki boko jappé jàppee da ko wara a ko wara faté mais yow ki nga japp mu gëna am doolé ko kay li mu wax deug la mëno ma japp Sonko Macky mënul japp Sonko Sonko la neex ndax la la preuve Sonko sa yu jëlé décision dëkk bi jaxo xoolal 111 bi 111 bi la def gaay yi tëj dañoo dem demba bala may faté Pikine lañu dem nous avons Pikine la ñu bureau 111 parce que dafa am ñetti booy yu dem Pastef dañu am 111 dans am euh, euh, quartier général Nous avons tijj ko parrainage de Google. Le parrainage de bëri li tax ma 111 de bokk Moussa Lamé wax na ko parrainage de 111 yu ñu jël yu bëri ñu dugal bureau police fait leen fa jàpp leen. tëj bureau bi xam na jàpp bi mën na indi problème ñu bàyyi leen ñibbi waaye caabi bi policiers yi ñoo ko yor kon parenage yooyu lan moo tax bëgguñu parrainage yooyu euh, euh, euh, jàll loolu mooy wane ne ba du bokk. Ousmane Sonko c'est une figure énigmatique waaye man. man condamné wu ma ko de mais limi def yépp moko ko xam na ko moo ko tey Ousmane Sonko mo tay jël Sénégal jox ko Macky Sall 2021 billahi wallahi taala limi def yépp xam na ko ba muy bayyi Macky Sall di recc mo mo gën xam Macky Sall dina def lépp bu tejj ko moko ko gën xam pourtant dafa bayyi mu jall instant bi moo jël Sénégal jox ko Amadou Ba li Ousmane Sonko di def yëpp xam na ko li tax mu koy def nag moom moo xam parce que moom temps ak suñu temps du benn moom day toog di la wax ay cinquante ans mais ñun amuñu ñun temps boobu amuñu ko ñun deux mille focus deux mille vingt quatre ngeen ñu waxoon focus deux mille vingt léegi ngeen bëgg ñu wax focus deux mille soixante quatorze nga sacrifier ñaari génération mais xoolal ñu nekk ci kaso bi dara dee. di ngeen yeewu par force Moussa Lamy wax na ko di ngeen yeewu par force gis nga kañ lañu wax la ñuy joxe list bi 20 janvier la xaw ma yàlla bu ko euh, cour suprême dàq yàggatul deux moo un ci des un mois et demi yàggatul di ngeen yeewu par force Pastef dinañ leen ne bokkul kenn ci Pastef du bokk kenn kenn kenn kenn du bokk te dara du yëngatu billahi barki rasul laaj du question ne dañoo ragal xeex de. mais Sonko moo ko décidé. Sonko moo décidé moom kenn ci Pastef du bokk te xolal Amadou Ba mooy mooy nekk président xanaa Macky jaxase carte ki waaye Sonko dafa bëgg bàyyi affaire yi li war a am am mais moom du intervenir li war a am nag mooy am bu dee Amadou Ba moo war a nekk président. Amadou Ba mooy nekk président waaye dama leen koy waatal billahi wallahi taalahi Ousmane Sonko du nekk président deux mille vingt cinq deux mille vingt quatre le vingt cinq février du ko nekk parce que balaa ngay nekk président da ngay nekk candidat d' abord dañu waxante dëkk ñetti weer mënoo changer situation bi mënul situation bi mënul changer en trois mois Macky Sall lan moo mën a dëpp xelam ba mu d' accord dugalaat Sonko ci list yi Pastef mi ñu tasoon ñu indiwaat ko. affaire terroriste mu doon wax yëpp mu bàyyiwaat ko bàyyi université tidji wa APR mere ko ñep ñom Antoine diom dal ci kawam ne ko lu tax ngay bàyyi Sonko mu ne day organiser élection yu jaar yoon lan moo en trois mois lan mo mën a motiver Macky Sall ko xamne bu nek président dalay japp dalay ray dalay rey pétrole bi sa xaalis mu nangou ko toroxal la dugal ci kasso bi lu tax nga koy joxat nguur xana Macky Sall bugul dara. Sonko ban mënul jox garantie benn garantie makki Sall ne moom bu nekk président du tëj Macky Sall dégg ngeen li Cheikh Bara Ndiaye wax avril Sonko day génn Macky dugg ñun ñu ngi continuer di menacer makki même bu ñu ko menacé wul Macky Sall bu bàyyee Ousmane Sonko nekk président yàqu na moo la ko gën a xam Mame Mbaye Niang yàqu na Adji Sarr yàqu na euh, euh, Mamour Diallo yàqu na jom euh, CPI la jëm Kaba CPI même bu dul sax affaire CPI mais seen teranga pétrole cœur Almad, Youssou Ndour teleem yëpp sëñ Mountakha taalibe yi mu ndara perte ñëpp di déglu Ousmane Sonko ndigalu Sonko Marabouy, la France li mu ndara perte ah sous région bi ñoom Goyta dañuy gën am doole ah enjeu yi Ngagne Demba Touré wax na leen ko ils ne vont pas nous dérouler le tapis rouge loolu la Ngagne Demba wax nee na il faut qu'il y ait un équilibre de la terreur loolu la mais loolu man génn naa ci violence affaire violence man bàyyi naa en trois mois njiit boo xam ne bu waxee tey toog deux semaines doo ko waxaat te dañ leen di wax ay comprimé lañ leen di jox ay comprimé dañ leen di manipuler comme xale jëlee pop Alé Niang mu leen di nelawal Sonko yamoon na la berceuse indi leen làmb Modou Lo Ama Balde le 21 euh, le 1er janvier Hein? di leen jox ay berceurs di leen jox ay compris ngeen melni ay xalé mais nak man duma duma du duma leen sénégalais parce que la majorité des sénégalais ay xalé lañ parce que 30 ans boo amé xamou xamoo dara même 40 ans mën ko am do xam dara tant que âge li ñuy wax man 55 ans la am gis nga il faut nga dund pour sa xel mën a tijjeeku ñuy wax la crise de la quarantaine américain yi du ko tuddee. midlife crisis yalla day melni day day tiñ sa xel xalé bébé mënoo ko expliquer démocratie sama dom 4 ans suma togué diko wax Macky Sall baaxul Sonko mo baax démocratie xamuko ci bir waxtan bi day jékki-jékki rek gis domou tubaab rek daw 20 ans boko amé tamit dafa am fu ce niveau di yem 30 ans boko amé dafa am fu ce niveau di yem Sénégal lool moy suñu cat xalé yi lamb lañu gëm gel volet sous rap man déglootuma musique té ay temps mais dama dan déglu rap musique xam nga Youssou Ndour Wally Seck mais déglootuma musique seetaanutuma sport NBA dama ko dan sétane di am ay crise bu ñu Los Angeles ñom Kobe Bryant ma tok mën tok toog deux jours duma nelaw Nadal moy sama joueur de tennis benn jour tout ma dee laa jar soxna Parcelles Assainies sétane Djokovic muy jouer match ma contre Djokovic nous gagnons Djokovic tout le monde sport le sport c'est la plus grande arnaque du monde la religion le sport la politique ce sont les plus grandes arnaques du monde Le sport lan ngay crise cardiaque ko crise cardiaque la moo gagné wala basket nga jël benn bal di ko dugal ci benn benn cerceau xamu pañi ñu naan la am nga cinquante points oh Kobe Bryant il a battu le record quatre vingt et un points ana Kobe Bryant hélicoptère la dugg hélicoptère bi daanu mu dee deux cent millions de dollars ay cent milliards la amoon ci xaalis loolu yëpp seey joueur NBA ñu leen def comme ay jaam

Aduna basket rek chaque jour dem di basket di basket 20 ans de carrière bo paré sa sa sa genou doto sax mën dox gis joueur NBA ku ci am 70 ans de crise cardiaque parce que xol attanul yenn yenn sport yi ñom Modou Lo Balla ni ñuy télé dé wax arnaque c'est la violence légalisée le sport c'est la violence légalisée parce que nit dafa guerre dafa bokk ci ci ci nit te xam ne mënuñu guerre chaque jour ñu jël beneen façon guerre mooy ne équipe bi mooy ñaari tali équipe bi mooy moom sa réew ngeen di jongante di guerre mais vrai arnaque la pour divertir nit ñi xam nga pour li li gën a am importance ah euh, ci réew mooy développer réew nit ñi jàng ben minorité bañ jël xaliss mais dañ leen di divertir di leen yéen xamu leen société sax nu mu grave religion ak sport ce sont les plus grandes arnaques du monde parce que diine tamit dañuy jël pour contrôler mind yi yàlla boo deewee da lay yóbbu àjjana boo deewee da lay yóbbu safara c'est pas vrai yàlla du lakk kenn du du du récompenser kenn ku dee dee nga xëy na loolu mooy récompense bi bu dee dee am na boo deewee dootoo yëg dara looloy àjjana mais àjjana bi ñuy wax fi la ci souf nga yor ci ouru ay ni yor ci 4 4 yor ci pétrole bi comme comme comme comme wa APR vrai vrai arnaque la mais loolu yag na ci def ay débat mais li ma len bëgg expliquer rek moy ngeen comprendre que Sénégal suñu cat moy jeunesse moy suñu force moy suñu cat bo nekké xalé do xam dara 30 ans boko amé xamoo dara man dama amone 30 ans amone na 40 ans lima xam. tant que amuloo yenn âge doo ko xam wala boog catastrophe dal sa dëkk guerre civile wala nga toog lekk toog boobaa da ngay yeewu par force tey Sénégal bu tàkkoon moom am révolution parce que yeen da ngeen ko tal la lamb mooduloo Balla Gaye da ngeen ko tal waaye bu dëkk bi tàkkoon dëgg-dëgg ba ki Sall xeex am Sonko dee mag ki dee nit ñi toog ay mois lekkuñu di ngeen yeewu par force di ngeen bayyi lamb di ngeen bayyi yusu Ndour di ngeen bayyi vol du sus waye nak lool moy suñu chance musul dal Sénégal nek suñu cat tamit parce que Sénégal méttiwul ñun immigré ñu jël ay milliards di leen yoni chaque jour sama jabar ah seen famille buñu continuer di votal Macky Sall c'est parce que ñi ngi lek di nan ma ngi leen di yoni xaalis dépense waaye bu ñu toogoon yoratuñu dara mën na am duñu duñu duñu dem ci makki est-ce que yéen may comprendre kon kon li ngeen war a comprendre mooy Ousmane Sonko mooy mooy mooy c'est le maître du Sénégal waaye moom li muy def moom rek moo ko xam en tout cas man décision il faut ma conclure message euh, live bi gars yi man li ma li ma xam mooy ne Sonko moom dafa jébbal Sénégal. Macky Sall 2021 2023 Sonko jël na décision ne fay djébal Sénégal Amadou Ba nangu leen ko li tax nak mu koy def mom mo xam xamuñu ndax dafa méré sénégalais xamuñu ndax dafa mere yow askan bi wala dafa dem ci bir mu ragal wala dafa dem ci bir ñu liggéey ko wala xamutul fu mu nekk wala mom ci système bi la bokkoon on ne sait pas ku nekk y a sa explication mais li wóor est leer dina parce que du Sonko bu xex xex na bu ku nangou kasso mom ku nangou nek kasso ñu tas sa parti nga nangou ñuy tejj say nit nga nangou te yow nit yoy dafa melni yow ya len di man len suma don scénariste Si don producteur damay film science fiction ben film lay def ma wax leen système nu mu garaawee parce que ñun li ñuy xeex sa Sonko li muy xeex yëpp système la mais système bi dafa garaaw a garaaw a garaaw a garaaw ba xol ne Macky Sall ak sëñ Mountakha tok ak ñom Youssou Ndour tok ñu ne Khalifa Sall mi commencé am doole gagné na Dakar kon du bok ci élection ben Karim Wade papam mo fi nekkoon mi ngi ak ay milliards PDS am na doole ba légui du bokk ci élection waaye nag mënuñu dem ci élection te amuñu kenn ku ku ku ku opposition te comme Sonko mi ngi waaj a ñëw dàq nañ ko fii nañ ko dàq ñu créé ñu créé benn doomu Casamance benn doomu Casamance lañuy ñuy comme Sénégal comme Casamance dañ fa am benn problème rébellion ñu créé benn joolaa nga xam ne rebelle yëpp dañuy ñëw ànd ak moom Casamance am yaakaar ci moom. non dañ ko mën def pour xeex rebelle après parce que bu ñu utiliser Sonko mën nañ dem ba rebelle yi ñu ñu ne leen bàyyi leen xeex te Sonko def na lool rebelle yi bàyyi leen xeex gis nga rebelle presque c'est inexistant mais la nature a horreur du vide mënoo éliminer Karim wad éliminer Khalifa Sall loolu communauté internationale du ci bokk. léegi nañ jël Sonko kon au départ dafa mel ni Sonko ci système bi la bokk au départ sëgëm Sonko xam na ko wala xamu ko je sais pas. mais ñoom mën nañu créer Sonko parce que man yàgg naa ko wax c'est Macky qui a créé Sonko moo ko bàyyi mu am plus fort reste bu ko neexoon Sonko du nekk député mais ñoom ñoo ko tey ñu bàyyi ko mu am plus fort reste nekk député waaye nag affaire fa dem ba ëpp leen loxo ndax dem nañ ba ci biir sax ñu ne eh affaire ba commencé ëpp loxo Sonko ngi woote marathon combat léegi xaaral ñu jàpp ko bañ ko bëggee jàpp lii film la de li ma leen wax nii film Sonko na. Sonko système bi da ko récupéré waat parce que Sonko dafa woote mortel combat dina ma rey waaye bu soobee yàlla du ma jàpp <coughs> ñu toog tuuti Sonko génne waat def benn discours maa ngi dem kaso waaye lu ma dal xam leen ne Macky Sall la yéen a ngi rappelé kon kay Sonko système bi récupéré waatoon na ko sëñ mu taxaa woo ko ñu préparé ko lalam ne ko da ngay dem kaso sonkoo d'accord waaye nag Sonko ba muy dem ci yoon xale yi. ñoo ne du dem Sonko mi bokkoon ci système bi nag ne man léegi damay génn parce que man dem naa ba am doole xale yi ne nañ damay génn est-ce que yaa ngi may dégg mais système bi daal dina ko non non d'accord am nga doole wey mais bàyyil Macky Sall mu continuer ba deux mille vingt quatre loolu yëpp système bi moo koy joué léegi ci biir bàyyi Macky Sall dem ba deux mille vingt quatre lan la arrangé système bi. système bi day génne guerrier yi léegi ñu amulun fit yépp dañuy génne eh Sonko ah on va gagner Cheikh euh, ki Karim khourum khak gëna am pit wax Cheikh Omar Diagne gëna am pit wax parce que légui dañ naan ah Sonko mi ngi fi noq nañ ko ben yoon 2021 bu ñu waxate rek dañuy génne xalé Sonko nak dafa génne guerrier yépp ba guerrier yépp génn muy muy ñi nekk ci Sénégal ak diaspora sama genre yi te ñoo duggal parce que ñoo génn di wax taal leen fii jàppee daf leen lii Karim Kayz foofu ah Ousmane Tounkara Sonko daf ñoo jox fit ñuy wax rek kat leen day réew mi taal leen Auchan yi yàq leen fii def leen lii jël leen euh, Nassi Cissé ah cocktail molotov mu dem ba génne anti système yépp nag daal di jël anti système bi daal di ko jébbal système bi man su ma doon scénariste noonu laa koy génne ndax xool leen jàpp yi. jàpp yi dafa mel ne Sonko moo jël anti système yëpp yëbbal leen ñu yóbbu leen rëbës war a kab manuel xool leen nit dof nga xam ne kër Sonko la daan naanee ataaya di fa defee ay live moom la ñu njëkk jàpp ci ku am tur ku ma xam ku ci am tur ko xam ne dafa jege Sonko rëkk Sonko xool géej Sonko jamono jooju wu ne woon ey génn leen marche ñu bàyyi libère nit dof billahi ñu bàyyi nit dof

Antoine diom dafa génn mu ne jàpp 400 mais loolu du won yon Sonko xol géej Sonko xol géej après nak makki commencé nak maire maire Bilal Diatta jola comme yow Bilal Diatta la xaw ma Jamil Bilal Diatta jaal comme yow nek maire bu mak bu mak keur Massar genn yoré pistolet né Marème Faye Sall boo ñëwee sama kër xawma lan ak lan dina la door bal

jàpp euh, Cheikh Omar Diagne après euh, maire parcelle bi Joola comme Sonko Jamil saane bokk Joola ñu jàpp ko ci ay affaire yu Sonko xool gi ñu toog tuuti may mun a jiyee jigéen feebar feebar ñu jàpp ko bu ma nee xool géej mooy Sonko bu ko neexoon mu ne marche leen ñu libere ñii par force ñu marche dëkk bi ak Macky Sall day dellu ginnaaw comprendre Sonko xool géej ñu toog Branco Branco ñu ne dañ koy seet ñu ne euh, maire Pape Sow la xaw ma Sangalkam moo jàpp moom moo fat Branco ñu dem kër maire boobu kattan apartement bi dañ koy yàqate appartement bu rafet sax yàqate ko jàpp ko Cheikh Baara jaay bi nga xam ne moo fi daan nekk ah Cheikh Baara Ndiaye nga xam ne moo fi daan nekk di wax ah Sonko lii Sonko laa Cheikh Bara Ndiaye ñu japp ko sonku xëy leen anti système yëpp ñing leen di japp ay pas yo xamne man dem nekkate japp ñu leen sax ci yëguma leen ko yëguma ko ay xawma lan xaw ma lan nay leer xawma xawma lan nay leer ñu japp japp ay nongu job di japp di japp anti système yëpp lañu japp Azura Sonko xol gi dafa melni ni Sonko dafa génne anti système ba anti système bi génn mu jàpp leen daal di leen livré Macky Sall boo gisee ma ne may livré parce que Sonko bu waxoon benn marche génn leen ñu jàpp ñu génn prison yi ñu génn mais ko waxul benn marche li gën a garaaw Jomaay Fay Jomaay Fay numéro 3 ñu jàpp ko ko xool géej ah Biram Souley bañ ko jàppee Sonko waxu ci ñu tas Pastef ah hein? ñu tas Pastef Pastef dañ ko tas bu ñëk ba ba Antoine diom né day tas Pastef Sonko dafa génn ne ko boo tasee tas Pastef ma tas sa lu bon ma tas sey sëy nga rappelé Sonko bu mu njëkkee ne day Antoine diom day tas Pastef waye bañ jàppee Sonko ñu tas Pastef Sonko waxul ñu dem ci piège bi xotti di tojati lépp mais dafa melni ni Sonko dafa dafa ne léegi man dina jëmay jël Sonko damay jël Pastef ma ma livrer livré leen ko film bobu la leen di jouer ben anti benn mais quel monde comprendre xamuñu ndax dañ kaa liggéey waaw léegi ci film bi mën naa def loolu mën naa ne dañ kaa ok pour me livrer pastif, il a livré le pastif. mais surtout arrestation A ay nit yu durée vacances yu au vacances ñëw Sénégal ñu jàpp leen ci aéroport bi yóbbu ñi nekk ci ay hôpitaux ay hôpitaux l'a mis le may wax ni dafa grave ci ay hôpitaux ñu fekk leen ci biir hôpitaux ay boy yu you xam non mais c'est extraordinaire Euh, fu ñu waree xeex dëgg ba war a am liberté doomu xaram tubaab bi blanco branco ñëw yàqa ndey suñu combat temps yooyu dëkk bi mu ngi takk deux semaines ñëpp di xeex branco dugg si divertir nit ñi ah branco temps yii tamit am na beneen façon diversion bu ñuy def di ñu wax naan day ñëw Sénégal la 17 ñëpp war a xeex ñëpp ne dañuy xeex la 17 branco bi ni ci euh, ci kiyam damay ñëw senegal Baye Ndiaye si boppam di wax ne bu len ko wóolu tubab la de tubab mbokkam rek diversion mais mais li li li lini lii nii kenn musu ko gis ci addu mais parce que défaite bu ñu am ni ken musu ko gis man nee naa lu ne seetaan naa ko seetaan Netflix damay seetaan la révolution américaine hein la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale seetaan naa la révolution chinoise xam nga la Chiang Kai-shek seetaan naa ah, les Mao Mao l'une ne ah, esclavage mais drame drame en deux ans de l'euphorie de l'euphorie euphorie félicité victoire la à la traversée du désert musuñu ko gis capitulation aux proportions bibliques kenn musul gis lu mel mais Ousmane Sonko li mu def dafa jaaxal ñëpp la jaaxal wala book nga ne Macky Sall mooy c'est un génie wala boog nga ne Macky Sall dëmm la sorcier la mais lii kenn mësu ko gis kenn mësul gis lu mel ni ba pare peuple bi mel ne dara amul keroog booy seetaan euh, euh, euh, face à face Modou Lo Boy Niang day mel ni Sénégal dara mësu fi xew mel ni Sonko nekkul ci kaso Sonko xam loolu toog fi mu toog. ils sont complets dans sa situation de prisonnier billahi li ku ko netale ko comprendre waaw te xolal dafa continuer dafa continuer ngeen du Il yakar, du dundé yakar du le yakar il ans c'est pas ce Sonko là qui va libérer Sénégal ni la continuer ba ñuy gëna le nit ñi nak nit ñi di gëna prison ñi di Il dé di avenir man nag toog leen fii di wax ñun Sonko rek toog leen fii di wax ñun Sonko rek Sonko Sonko ci boppam ah dafa nangu dogal dogal bi mooy tas nañ sama parti tëj nañ sama ay nit ah Sénégal yi seetaan nañ ma yow askan bi euh, euh, trahir nañ ma xëy na dafa découragé yow askan bi trahir nañ ma Sénégal moom dans sa logique pour moom dañ koo trahir na wax na yow askan bi ñoo ko trahir mais xale yi trahiruñ ko parce que moom moo ne xale yi bu leen xeex. kaawu baaxul boo kaawee dañuy dàq élection yi parce que ñoom élection yi lañ bëgg mu am te élection yi bu amee te ñoom bokkuñu xam nañ ne Amadou mooy nekk président waaw xëy na xëy na loolu la xëy na Amadou Ba mooy plan B xëy na Amadou Ba bu ñëwee dina libérer Sonko tëj Macky mais loolu man je ne crois pas waaw mais gars yi daal jàpp leen ne ah nangu leen dogal waaw dara du changé nangu leen dogal te yàlla du juum. Yalla du djum Sénégal mo paré wul pour changement Sénégal dafa bëri ay xalé yoo xamné ils sont inconscients te mag ay jaam lañ xeyna na loolu tax Yalla di ñu mugal parce que mag yi ñoo nekk ay jaam ku nek sa bop nek ci lamb bi ay pa Bécaye Mbaye parce que ñom am nañu seen pourcentage sen doom yi ñi ngi ñu ngi liggéey mbër yi dem di dem ku mel ne euh, euh, Pape Boy Djiné bu la né dafa dem ci Pape Malick Ndour mu koy fay pour mu pour mu muy door ay nit ah mais yàlla yàlla xëy na loolu la gis Sonko aussi xëy na loolu la gis trahison yi ñoom ay dara ñëpp trahir ko mu décourage mu ne comme léegi nii la nañ nañu bàyyi Macky Sall continuer man noonu laa ko expliqué ah du question ni Sonko daf ñoo trahir de mais benn question nit la dafa dem ba ci biir affaire bi ëpp ko doole xamatul lu muy def te Pastef kenn ñemewu ko wax dëgg mu ne comme dañ may dañuy jaay doomeraam Barthélémy Dias yaakaar na mën ma suuf léegi nañu toog ma seetaan ma xool li ngeen bëgg du ko def da ngeen bëgg ma tar réew mi Macky Sall dee man ñu ray ma après yéen ngeen récupéré du ma ko def bu yéen yéene waroon def bloc ci man yéen ñëpp Ahmed Aïdara Habib Sy Moustapha Sy ah Gathie Fall Maïmouna Bousso euh, euh, Aïda Mbodj yéen ñëpp waroon def bloc ci man ñu jëlee fi mag comme légui bëggu leen ko def légui loolu bëgg ma joxe ndigal ñu tar réew mi du ma ko def Sonko il a raison ci côté boobu du ma taal réew mi l'essentiel essentiel Macky dem na na dem amono Ba nag bu ñëwé cinq ans yi ñu xool xëy na deux mille vingt neuf Amadou Ba dina doyal man ma jël waaye du ma fi nekk di taal réew ñu may rey di rey Anna Diamanka rey Macky Sall après doome xaraab it ngeen nekk fi di daal di daal di xëy na Sonko loolu tamit moo tax mu ne xaaral ma toog loolu nag bu ko defee Assange man du ma ko xas nit kese la nit kese la ñu ko waroon jàppale jàppale wuñ ko mu ñu dem ba ci biir. mu mét eh, mu xamatul fumu nek xamatul lu muy def mën na am aussi dañ serigne sëriñtu wala dafa am luñ ko jox deug neexul bu mu taal rew mi na tok rek seetaan Amadou Ba xeyna bu ñëwee dina dina dina dina am yermane nek ah mu bàyyi prisonnier gaay ma ngi couper sama live sax sama batterie sax jeex mais man sax bo len gisee sama live ngeen xam man sam bop dama waru ci yalla man sama live dama ne temps sax dama ne woon est-ce que duma arrêter live yi parce que ñu bari dinañ yaakaar ne damay xalab Sonko xalab bu mako deug mo neexu rek comme ni ko les misaal ma gis nga nak defet bo doon xex da ngay il faut ngeen sportif Maki a gagné il a gagné si Sonko Sonko bu démé ba ci bir mu nangou né Maki gagné na papa Alé Niang bu kenn xeex xeexatuñu wa li kon nañu nañu def lu ñu bëgg lan motax papa Alé defatul live nañu def lu ñu bëgg bu ñu kenn xexati nañu tok ñu dem ci ay élection dëkk bi du tak pétrole bi bu ñëwee mën na am Amadou Ba dina ko gérer normal looloo fi des ah. voilà gars yi maa ngi dem nag balaa live bi di jeex suba on continue suba dina am yeneen information yu ñëw mais nag espoir bi 1 pour cent rek laa leen jox chance 1 pour cent parce que def génn ci kon man awma espoir voilà mais nag nañu xool lii xew chaque jour rek dina am lu xew gis nga démb lu xew jomaay lañ dem ñu tëj ñu tëj euh, kiyam tëj ay parrainage am tëj tëj jàpp ñetti nitam kon kay mooy jomaay du bokk léegi ñu xool lan mooy am surtout live Pape Alé nañu xool lan la ñuy wax fay nekk di jàmbat rek du leen jox benn information waaw nañ dem ba suba incha allah merci.